première fois, le maire de Dakar, il y a une radio. C'est très bien. RMD 95.5 émettant depuis le building communal de Dakar. C'est très bien.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 ngeen mun jokk ak mom ci 33 889 83 31 33 889 83 32. نسألك يا من هو الله الذي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

617 70 44 77 téere baa ngi nii chance baa ngi nii xéwal baa ngi nii. la ñuy doxee ci dara jaam nu sàkkee kooka mooy Muhammadu Rasulullah. yaa leen gënal Seyduna Muhammad yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo Muhammadu Rasulullah su la yàlla mayee baat bu neex. nga mën a way te wayoo yonen dee nga ka way dee na sa way wa niil na billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين nahbudu wa وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الذي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع حليم بسم الله السافي بسم الله كافي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 ñaanu nan yàlla toog a yéen jotaay seen émission Wadduha borom bi may nu ko tey di mercredi di 11 janvier 2017 fa tabarakallah noonu la ñu koy ñaanee tàmbaleeg bismillahi rahmaani rahim yàlla kàttan nu ba àggal ak alhamdulilahi rabbil alamin ka xaadati nanu adoo di koy def rek dañu ñaan fépp foo xam ne kaddu àgg na fa nu jàng faatixa jàng la jàppandi si xul wallahu ahad gannaaw ba nu ko defalee xaddiya sallallahu alayhi wa sallam nu def ko xaddiya bépp néewu jullit boo xam ne ma nga barsàq di ñaan yàlla beesal yërmande sa ñoom ñaan yàlla beesal njëggal sa ñoom ñaan yàlla yit leeral seen gannaaw mu mel ni ki émission tey bi li ñuy wax ala daw mi ndax yalla si dogalam nu ngi njëkkanoo def émission Wadduha si radio municipal de Dakar émission ba nu njëkkanoo def nu ngi ko defoon le 13 janvier 2016 ba tey fa tabarak di 11 janvier 2017 mu mel ni ki at boo xam ne émission Wadduha mi ngi municipal de Dakar. te man lam yaskuru naas la yaskuru laax ku santul doomu aadama rek doo sant borom bi mooy tax dañuy tàmbaleek sant sant borom kër gi kilifa gi di monsieur Coulibaly fa tabarakallah defe naa fukki weer ak ñaar du ñaari fan te ni ma yàlla boole woon ak moom kóllëre si siiwal FM 98 point bi yàlla defee nu dénkoon ko rajo ba man maay jëmm jëf njëkk a def émission loolu kolleere la si sàmm kolleere googu fa tabarakallah bi mu demee ba am ay responsabilité fii yàlla def ma bokk si ñi mu woo ngir nu mottali sunu kolleere kon fa tabarakallah monsieur Coulibaly ñu ngi lay ñaanal di ñaanal rajo bi di rajo municipal de Dakar di ñaanal ñi fi yëngatu ñëpp yàlla yokk fi xéewal yàlla yokk fi teraanga yàlla yokk fi sutura fa tabarakallah fukki weer ak ñaar yoo xam ne bii du benn yoon boo xam ne bi wax na ma wax nga loo warul a wax wala wax na ma defeel nii wala defeel na le lu dul toujours lépp loo xam ne bii luy yokk Wadduha la rek mag nu say xelal te loolu yéene la te fa tabarak laa nit bu la yéenee rek amuloo fayam la nga man rek mooy di koy ñaanal di koy ñaanal muy mucc di yokk kon rajo municipal de Dakar eh, si sama tur ak turu soppe Wadduha yëpp nu ngi leen di ndokkeel nu ngi leen di ñaanal yàlla yokk xéewal fii si kër gi fa tabarakallah di nuyu bu baax sunu technicien bi nga xam ne moom la ñuy jàkkaarlool di Malick Sidibé di koy santit fa tabarakallah àllarba bu jot amul ba émission amul dina dafay itte ba nit ñi mën a am lu wettali ko te loolu lépp fa tabarakalaa itte la itte la yéene la it kon nu ngi koy ñaanal moom it yàlla yokk ko fa tabaarakalaa di ndokkeel auditeur auditrice soppe yi fépp foo xam bi émission Wadduha na fa wala nu ngi imisong émission Wadduha nu ngi leen di di ñaanal mu ki génn nan at muy 2016 so ne at nag da nga wax ne 52 semaines la wala 53 da nga wax ne 365 jours la da nga wax 12 mois la mu mel ki bëri na bëri na bés bu lu sa xew moo xam xéewal la moo xam safaan kon day jaadu jaam su la yàlla may nga dund at ba mu jeex yenn saa yi ngay xisaab sa bopp si lan laa def si yiw nga dogg ñaan yàlla ne yàlla naa ko yokk xisaab sa bopp sa la nga def si safaan it nga muslu si seytaane jéggalu si borom bi ñaan yàlla yàlla na la yàlla tàggale ak loolu mu mel ni ma ko waxee fukki weer ak ñaar lu bëri lu bari xew na fi fa tabarakallah dinaa di wax ne jafe na lool nga xëy ba jant soo te déggoo kon ne bàyyi ko na fi nu ngi koy jébbal boroomam te du néewi pexe walla tooñ moo ko yóbbu borom bi rek la sob fa laa yenn saa ngay dégg borom bi ñuy wax ndogalam teg jaam lu diis a diis a diis yàlla musal la kon loolu ku ko yàllay may rek looy sant rek war nga koy yokk nuy ñaan at mii nga xam ne moom la ñu dugg muy 2017 mu doon at boo xam ne atu jàmm lay doon yàlla yokk jàmm si réew mi di Sénégal fa tabarakallah atu sutura ñaan yàlla yokk fi sutura ñaan yàlla mu doon atu ouverture fa tabarakallah ñaan yàlla xéewal yi yokk lool ñaan yàlla it muy atu wér ndax dinañ di wax na xéewali àddina la sa gën wala bokk na sa la sa jiitu muy wér ndax lu nit di def rekk fa tabarak la euh, wér moo koy gunge sa loolu kon nu ngi ñaan yàlla woyofal yaram yi moo xam tawatu lu mu doon fa tabarak la rawatina nag tawatu poos muy tawatu jamono te muy feebar bu xam ne defe na xaw na yaatu ndax dina di wax ne bu wayef dana yomb lool dana yomb lool muy ku ko yàlla natto ngay santé dana yomb ngay jaxaso dana yomb yi ngay am stress te yooyu bu dajaloo rek tabarak la danay néew yaram baña dis diis kon nu ngi ñaan yàlla suturaay añ reer ndekki suturaay sangu yàlla nañu ko yàlla yombalal si at mi di 2017 fa tabarakalaa di ñaan tamit aajo yep lépp luy aajo jullit te muy lu yàlla gërëm moo xam soxna si nga xam ne itteem yëpp mooy dama bëgg borom kër dama koy wax di koy wax lu bëree bëri ne xéewalu jigéen la sa jiitu man jàpp naa ne mooy ma am sëriñ bu baax kon ngi ñaan képp ku si toll yàlla tànnal la nga am sëriñ bu baax fa man see jaamu yàlla su dee góor goo xam ne day ut soxna it yàlla jàppandalal ko ko fa tabarakallah ba mu mën a jenc ndax samp kër la wax ne bala ñuy wax nit ne samp na kër mooy am na soxna kon tegtal la si ne fa tabarakallah yor soxna lu mënula ñàkk la si góor ñi nga xam ne bii dañuy sàkku ak lu ñuy mën di sàkku moo xam élève yiy jàng tey fay ut diplôme ni def formation te di fay sàkku ëllëg fa tabarakalaa nu am embossement lépp loo fépp foo xam ne nit a nga fa di sàkku lu mu suturloo di sàkk loo xam ne daf koy yéwénalal dundam fa tabarakalaa yàlla jàppandalal ko lépp di ñaan yàlla at bii di 2017 <coughs> doon at boo xam ne daf si gën a xol yàlla gën si for xol ndax xol yi su jagee rek fa tabarakallah lépp lépp lépp lépp dana jag eh, dina di wax ne la gën si doomu aadama wala lay conduire doomu adama lépp <coughs> mooy xol ni ko sunu sëriñ ba waxee yàlla na yàlla taas nu si barkeem Mawlana Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh mu ne ka waxoon surgaam ba ne ko bu subaa na nga fees xar bi te nga indil ma la sa gën a baax nee na daf ko fees indil ko xol ëllëg sa mu santaat ko comme loolu waaye ne ko indil ma si la sa gën a yées mu feesaat ko indil ko xol mu ne ko lu tax xol démb xol tey mu ne ko waaw ndax xol mooy jàkk rek lépp jàkk waaye xol mooy safaanu yi lépp safaanu kon yal yàlla fóot xol yi ba nga xam ne maxaba ak mawadda dinay yokk yàlla raxas ci xol yi triste raxas ci wuruj raxas ci wor raxas ci fa tabarak la kañaan surtout la gën a yàq jamono mooy loolu nan di nangu dogal képp ku yàlla jox cër ñëpp nangul ko cëram jàppale ko gunge ko ba fa ko yàlla yemale kenn bañ a xeeb sa cër ndax dinaa koy wax ne këjël première yàlla def la nga jël vingtième soo ko kiñaanee sa soo ko iñaanee première am boobu ana ana ka jël euh, cinquantième wala kon kooku nan la war a def mooy tax fu nit tollu rek am na ku mu tene kon di xool toujours sa ñala tene mën nay jur safaan mooy tax fu nit tollu rek nay sant te ñaan dollent jaam moom ba muy jombale boppam lenn waaye lu ko yàlla jox na jël te yàlla yokkal ko yéen képp ku yàlla jox cër mu yéene ko képp ku yàlla jox garaat mu yéene ko ku yàlla jox fonction noonu ànd bu am tamit moo xam ne loola neex borom bi fa tabaraka la mu doon at boo xam ne bi daal xol yi daf si defaru yàlla raxas xol yi génn si safaan yooyu yëpp yëpp foto tabaraka la di ñaan yàlla it muy atu salaam comme ni ma ko waxee woon musiba yu bari te di faral di am it yàlla dàqal na ko yàlla dàqal nu ayu ndox yàlla dàqal nu ayu safara yàlla dàqal nu ayu ngelaw fa tabarakallah loolu daan nu ngi koy ñaan borom bi nga xam ne mooy jalla jalaluhu di faxalu li ma yurit at mi nga xam ne mooy 2017 fa tabarakallah muy atu xéewal ak naataange si réew mi di Sénégal nanu àdda woon day ubbee tamit di ñaanal bu baax tey siyaara tey sàkku ñaanu suñuy kilifay diine yàgg naa koy wax ne fa tabarakallah nooy garanté réew mi ndax al xulamaa warasatul anbiya kon nu ngi leen di ñaanal bu baax di sàkku seen ñaan di ñaan yàlla yokk guddal seen fan di ñaan yàlla yokk wéral seeni cër fépp foo xam ne kuy jottale mission sallallahu alayhi wa sallam ma nga fa nu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal fa tabarakallah di ñaanal suñuy njiitu réew ndax fa tabarakallah suñ seen jàmm mooy suñuy jàmm ñoom ñëpp lépp lu nu yéene si réew mii di Sénégal yàlla kàttanal leen ba nu mën koy matal képp koo xam ne yor nga fonction lu mu mën a doon rek yàlla kàttanal la ba macha allah ba la nga sa yéene si xéewal nga mën koy matal di siyaara njabootu Wadduha njabootu Wadduha e, fi tabarakalaa dinu si jiital sunu mag di sunu wëllëre di sunu xarit di alxaaji xaadim rasul Guèye <coughs> nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal di koy ndokkeel ndax fa tabarakalaa xam nañ ñun fa mënu féete e, kon alxaaji xaadim e, si sama kàddu njabootu Wadduha yëpp nu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal di nuyu bu baax tey siyaara eh, ñi nga xam ne bii ñoom la yàlla def nu nuy jàppale si liggéey bi sa daara ja di géejawaay sunu mag ngi koy nuyu di koy siyaara di ko ñaanal nga xam ne moom lañ fi wettali konte tey sax ak sëñ Modou Fall muy sëñ Babacar Cissé nuy ko ñaanal foto fa la yàlla yokk ko wér yàlla yokkal koy xéwal di koy sant bu baax fa la di nuyu Omar jàlloo di koy nuyu di koy ñaanal niki noonu di nuyu Malick Sock di nuyu bu baax tamit fa tabarakallah Xaadim Njaay di nuyu tamit àll Gajaga eh, nga xam ne fa la sunu rakk la yaayam jox nu ko waaye di nuyu bu baax tey ñaanal Cheikh Ahmed tiijaan Serif Gajaga di ñaan yàlla yokkal koy xéwal njabootu Wadduha bu na ko tuddee xel yi day dem si Mouhamadou Mountakha Mouhamadou lamin Mountakha Ba dafa tabaarakallaa si njaboot gi la bokk moom it nu ngi koy ñaanal si at bu bees bi lépp loo xam ne yéene na ko si si procès ki xéwal yàlla kàttanal ko ba mën koy matal fa tabaarakallaa di nuyu bu baax tey siyaara alxaji Fallou Cissé nga xam ne moo nu defal sport boobu di nuy gunge. moom it ngi koy nuyu di koy siyaara di ñaan yàlla yokkal koy xewal alxaaji Baara Diouf mi ngeen dégg noonu si xasida Muhammad Rasulullah nga xam ne dañoo wëlërante ak moom depuis 2011 ba léegi nee naa fu ma defee émission Wadduha rek sëñ Baara Diouf moomu moo nuy gunge loolu lépp di dellu si kollëre ndax dina koy wax ne émission Wadduha maa ngi ko njëkk def depuis 2011 bi ma njëkkee def émission amoon problème mu scénarique bi ma demee kër ga am xasida bii nga xam ne moo ni gunge fekk dama ko daan wettali ko lu bëree bëri bëri eh, ma war a delluwaat ma ne bii daal naa ko jël mu may wettali dafa tabaarakallaa si xasida la bu am solo eh, sëñ Baara Diouf si barke Mahamad Rasulullah boobu ngay tàgg nu lay siyaara di lay ñaanalit eh, yàlla yokkal lay xéwal fa tabarakalaa di siyaare ñi nga xam ne noonuy jàppale si pharmacie Wadduha yi e, ndax Wadduha e, géejuwaay buntu lycée Seydina Limaamu Laay ñu bëri xam nañ ne mooy dëkkuwaayu Mara Cissé waaye léegi da nga dégg nu ne soo wàccee si buntu lycée ba da nga lo boutique Wadduha fa tabarakalaa loolu di e, nu say sant yàlla nga xam ne ngi tàmbali woon si 2016 bi depuis avril 2016 nu ngi si sant di nuyu yaayu Mahamad mi nga xam ne moo fa nekk di nuyu Wadduha ñi nga xam ne noonu nekkal point di leen siyaara bu baax di leen ñaanalit sunu yaay Adja Fatou Ndiaye di koy jaale it magam boobu nga xam ne moo wàccoon liggéey dimanche bi jàll di rawul Ndiaye di ñaan yàlla yal na yeewoo aljana fa tabarakalaa di nuyu alxaaji Alfuseynu Saña di leen ñaanal yàlla yokkale ne xéwal di leen massaw lu bari si coonaay téléphone yeeg coonaay tegtel jaamu yàlla ya fay dem eh, di leen ci massaw di nuyu Wadduha Tëngéej sunu jigéen Adja Aram Ndiaye bu association Wadduha fa tabarakallah nu ngi ñaan yàlla loolu nga xam ne moom la sos muy association Wadduha te mu lépp di si bi balay 2007 di jeex moo àgg foo xam ne dina kawe sa njort di ko koy ñaanal di koy ñaanal membre yëpp fa tabaarkalla ndax lenn dafa gënul kila wax nan ànd nan ànd juboo nan ànd nekk benn nan ànd di demlante ak dikkalante nan ànd yéenante jàmm nan ànd di dimbalante si yiw loolu lu ko gën neex dafa amul fa tabaarkalla moo tax ñoom ñëpp dama leen di wax ne. xaj na man ngeen def seen kilifa waaye man seen surgalaa seen surgalaa si damay bëgg ku si nekk rek lépp luy itteem nu jaamu si yàlla suñu kem kàttan ndax lenn dafa ëpp nit ñi mooy am nit ñi li benn waxkat waxoon ne fu nu la doon tànnaloo fukki nit ak fukki dërëm nee na boo dee boroom xel jëlal fukki nit ña ndax ne fukki dërëm mën nay jeex waaye boo amee nit ñi fa tabarak la dootoo ñàkk fukki dërëm kon Adja Aram Ndiaye ak membre association Wadduha yëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di leen ndokkeel si at bi nga xam ne mooy 2017 fa tabarakallah di nuyut Mouhamed Diop nga xam ne moom it mu ngi jàppale bu baax si liggéey bi te nekk Tëngéej di e, sunu goro fa tabarakallah ñu koy nuyu di koy ñaanal yàlla yokk ko wér di ñaan tamit yàlla yokkal ko ay xéewal di nuyu sunu jigéen soxna Kumba Ka dem ñaa nekk ba Sali Carrefour moom it nga xam ne fi tabaarakallaa ñiy dëkkee côté yooyu yëpp tey am lu ñuy soxla moom lañ koy booleel mu am sa itte lool it ndeysaan am sa yéene lool it fa tabaarakallaa du may fàtte mukk ba muy def conférence nga xam ne dañu ko dara jaale loon ne ni waa Ndakaaru di tuddee Wadduha laa bëgg fii si Mbour nu koy tuddee Wadduha itteem bokkoon na si ndem ba ne dama bëgg weer bu nekk nga tànnaloon ma fan yoo xam ne dangay nekk fii si Mbour ngir ñëpp xam ne tey Mara Cissé mu ngi Mbour loolu itte la loolu yéen la kon fa tabarakalaa nuyu koy yokkal koy xéewal yàlla barkelal koy njabootam di nuyu bu baax tey siyaara sunu jigéen bi nga xam ne moom nekkal Kër Massar di jannu jàppale it si liggéey bi di soxna Jaara Mbodj nuyu koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal yàlla yokkal ko ay xéewal ñaan yàlla it barkeelal ko ay njabootam di nuyu fépp foo xam ne soppe wëllëre xarit ma nga fa nu ngi lay nuyu di lay siir siyaara di lay jox sa cër di lay wàcc sa wàccuwaay fàttewunu yaayu wadduxa yaayu wadduxa soxna sëy nu ngi lay siyaara bu baax di ñaanal yàlla yokk la wér di ñaan yàlla yokk guddal fan ñaan tamit yàlla yokk barkeel njaboot gi fa tabaarakala seen émission Wadduha tey émission ndokkalante la nax ay semaine yu baree ngi nii defu noonu émission direct te daanan aada weer bu nekk émission ba sa jiitu mu am loo xam ne dañ koy wëllërante ak yéen tey jii si kattanu yàlla nu fas yéene ko fas yéene ñaar fukki appel yee njëkk a dugg si kattanu yàlla bu nu yàlla dimbale dina am lu wëllërante ak ñoom la wëllërante ak ñoom nag sunu nu wooyee wax nu la nga xam ne moom lañ gën a noo ittewoo te amaana yombul woon nu seet nañ lay gën a jàppande si ñoom nu man ko wëllërante ndax tabarakallah ak wëllërante rek lay doon sama diggante ak yéen ndax eh, yëg nañ bu baax cofeel geeg yëg geeg jàpp geeg ñaan yi lépp yëg nañ ko te xeebu nu si leen nit mu mel ni ki tey dañ fee wettali konteeg ñaari wëllëre nu fas yéene noo gunge si émission bi ki si jiitu muy sëñ Babacar Cissé di suñu mag fa tabarakalaa doon koo xam ne bii fa tabarakalaa def na si ñun lu bari moom lañ fi fas yéene wettali kontel fiit ak suñu wëllëre boo xam ne bii wëllëre la bu yàgg wëllëre la depuis 2003 nga xam ne booba gan laa woon fii si Dakar ba léegi si fa tabarakalaa sunu kóllëre yàlla di koy nu koy sooxatal nu ñaan yàlla gën ko dëgëral yàlla yokk ko foto fa tabarakalaa muy xam muy Modou Fall moom fa tabarakalaa moom lañ fa yéene wëllëranteel moom lañ fa yéene wettali tey la ko waral tamit lépp day dellu sa la ma doon wax rek muy kollëre ndax ki nga xam ne bii macha allah la nga xam ne moom la yàlla def muy fonction sa lay yëngatoo di si daan dooleem su demee ba ubbi place xelam. daj ne place bii kat dama koy wëllëranteeg Mara Cissé tuddee ko Wadduha loolu du lu ndaw loolu nag fa am mbégte la lool si ñun moo tax tey nu fas yéene ko indi si émission bi nga émission Wadduha présenté ko auditeurs ak auditrices yeeg soppe yi ngir képp koo xam ne bii am na itte bu méngoog la muy yëngatu te mooy lay defar mbiru xew xam naa dana ko gën a détaillé moo xam album nga bëgg moo xam film nga bëgg lu mu si mën a door rek si kàttanu yàlla eh, comme léppam daf ko wëllëranteeg Wadduha nu bëgg wëllëre yi yëpp wëllërante ak Modou Fall loolu it bokk na si li tax tey nu indi ko eh, mu wettali nu si seen émission Wadduha xam naa su ma jox su ma leen joxee nu nuyoo ba pare rek eh, danañ mën a wettali konte ak yéen si yoon bi nga xam ne bii moom ngeen daan jaar si 33. 821 14 85 moo xam ku bëgg bokk si ñaar fukk ñooñu nga xam ne dafa am lu ni wëllëranteel wala ku bëgg am lu nu fàttali nu bu fi nekkee nu fàttalikonte ko wala ku bëgg am lu yokk lu mu yokk si émission bii di Wadduha su ko defee nu mën noonu la seen émission bi euh, nekkee tey incha allah kon damay bàyyi sëñ Babacar mu nuyoo su paree nu jox sëñ Modou Fall. bu ko defee nu ngeen mën na topp si 33 821 14 85 kon sëñ Babacar bisimilah. jërëjëf sëriñ Mara. yaa na auzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النازل الحق بالحق والعادي إلى زرادك المستقيم وآل آله أخ قدر ومقدر العظيم دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Mara ñoo ngi jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo nga tàmbaleel ñu ko ci directeur bi ba ki ci gën a ndawe ci kër gi. Mm-hmm. di ñaan yàlla yokk kër gi. di nuyu itam ñi nga xam ne moom lañu bokkal daara ji. Mm-hmm. muy Serigne Omar Diallo. Mm-hmm. ak Malick Sock. di nuyu itam ki nga xam ne moo ñu nekkal ca daara ja di ndey daara ji ñu koy wax Badiane Ndiaye. di ko jaajëfal ci taxawaayam bu rafet. ak yaatalam. ñoo ngi ñaan yàlla yokk ko ci fa mu bëgg a yegg yàlla yokk eggale ko foofu mm-hmm. di nuyu itam ki nga xam ne moo ñu nekkal ci bitigu Wadduha muy soxna Saarata mm-hmm. ak maman ñoo ngi leen di ndokkeel di leen siyaar di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. di nuyu mboolem kuy diglu Wadduha rek ku nekk soppee Wadduha rek ñoo ngi lay jox nuyoo bi di la jox sa wàccuwaay ci barke Seydina Muhammad waaw Serigne Mara daal loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne yàlla na yàlla fay jërëjëf rafet sëñ Modou Fall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 ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax neen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ñaan yàlla mi nga xam ni mooy boroom dogal di boroom kàttan yàlla na yàlla yokk xéewal gi dolli sutura si yàlla na yàlla yokk xéewal gi dolli sutura si yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def te bi loolu wee ñu ngi nuyu sunu kilifa sunu xarit sunu kóllëre mi ngi toog di sëriñ Mara Cissé mm-hmm. di nuyu tamit magam ji ñu jàkkaarloo mm-hmm. sëriñ Cheikh Cissé mm-hmm. Babacar Babacar Cissé nuyu tamit sunu technicien bi ñu jàkkaarloo Malick Sidibé Malick Sidibé di leen wax ni leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah di nuyu tamit bépp auditeur wala bépp auditrice boo xamante ni ci waxtu wi yaa ngi déglu rajo municipal RND fi ci Dakar. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, di la wax ni ñun kat sunu teewaay fii tey. Mm-hmm. mën nañu wax ni lépp lépp lépp ci kilifa gu baax gii la. ci kilifa gu baax gii la. ni ko waxee léegi ci bi mu ubbi. defe naa ni sunu kóllëre man ak mom yag na lool wax deug yalla wallahi wallahi waye nak tofu ci dara. tofu mhm. ci dara tofu ci dara. Mhm. ñu leen di wax dal ni leen. Mhm. insha allah rabbi ci kartanu yalla lepp lo xamanteni ci si manon nañ ko def ci mom dinañ ñaan yalla ci kartanam yalla doole ñu bën gën ko man amin amin amin fépp koo xamante ni si yaa ngi déglu jamono ji ñu toll rajo municipal. Mhm. ñu ngi lay tàll sunu loxo tamit di la yéene jàmm. Mhm. ak salaam. wallaahi te di la wax foo mën a toll tamit ñu lay wax ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. kon su ko defee Mara. Mhm. kàddu yooyu ñu nuyoo daal ba si kanam. Eh, rafet na macha allah nuyoo bi jotal na. Eh, bu nu doon laaj kan mooy Modou Fall lan nga may mën a tontu de. waaw Modou mhm. benn jaam bu ndaw la rek. Mhm. dëkk Géejawaay lycée Limaamu Laay mhm. di yënguti ci lu ñuy wax. reporter photo caméra. am na Limaamu Laay nag. tëlib dina Gunaas mm-hmm. foofu la suñu dëkkuwaay nekke mm-hmm. Mm-hmm. bañ ci dalee liggéey léegi tamit wax dëgg yàlla mën nañoo wax ni daanaka ñoo ngi ci fukki at ak juróom macha ñoo ngi ci sant yàlla bu baaxit nag ñoo ngi ci sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla xam nañ ci ku ne xam nañ ci ku ne yóbbu nañu tamit fu ne boobu moo waral sax suñ jotaayu tey bii nii. Mhm, mhm. lan mooy relation beeg Mara ba nga ubbi studio de ko Wadduha. Euh, suñ relation ak Mara Cissé. Mhm. Mara Cissé ñi nga xamante 2003. booba su ma juumul ci lay soog a ñëw Ndakaar. wallaay dëgg la dëgg la. <laughs> booba fi mu nekk nii ci daara ji bi masaan a am ku ko soxla mm-hmm. day jógal boppam dem jëli ko garndul ko boppam andil ko wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi dëgg la mm-hmm, mm-hmm. muy 2003 wallaahi ba mu ñëwee li may liggéey tamit mu am lu mu ci bëgg daa laaj xale yi ci koñ bi nan laay def ba am ko fii mu nekk nii ci daara ji am ku ko booleeg man ñu naan ko Samba Thiam daal di may woo ma ñëw bi ma wooyee ma ñëwit mu daal ma am na ku la soxla ci biir yéegal ci kaw nga fekk ko fi mhm. bi ma yéegee ñëw nuyoo moom ak si fekk ko mi ngi teg saagam sax ubbeegu ko mhm, mhm. mu daal may wax li mu bëgg ma def ca la ma ca man wallaay wallaay wallaay lépp rafet tamit ba ma ci defee la ma ca man tamit ba nëgë wax dëgg yàlla boobu ba nëgë lépp loo xamante ni si soxla na ko ci li may def boobu ba nëga ni mhm. day yëkkati téléphone am rek woo ma ni ma nangam ak nangam laa bëgg mhm. Mhm. ma jéem ca na ma ko na ma ko mane ak na ma ko bëggee rafet loolu macha wax dëgg yàlla muy nit koo xamante ni si ku baax la ku sàmm kóllëre la ndax su ma ko waxee yéen auditeurs yi déglu defe naa di ngeen ko war a gëm ndax 2003 ak léegi ba 2017. defe naa du ñetti fan. wallaahi wallaahi wallaahi. defe naa du ñetti fan. te boobu ba nëgë nii lu mu soxla cérémonie ba mu am. da yëkkati appareil am woo ma ni ma Modou Mboum ma ne waaw mun ma bisimilah. yëf yaa ngi noonu si sa loxo. ma jéem ca la ma ca man muy nit ku baaxit nag. di ko yaatu tamit wax dëgg yàlla. di ko yaatal tamit nag. di ko am kóllëre tamit nag wax dëgg yàlla mm-hmm. Mm-hmm. ndax ay xaritam ak mbokkam yépp wax dëgg yàlla présenté na ma ak ñoom wane la na ma ak ñoom mm-hmm. lii may wax nii firnde la ci ndax bu fekkonte ni loolu amul tey lii nii du mën a am ma di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne ku sàmm nga sàmm yàlla na ko yàlla sàmm te sàmmal ko njabootam yàlla mi nga xam ne tamit ku mu aar nga yàlla na ko yàlla aar aaral ko boppam aaral ko njabootam kóllëre rek sun borom moo wax ni moo koy fayal boppam mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ndax dani lu muy laaj la ëllëg wax dëgg yàlla moom ku ko sàmm la ku sàmm kóllëre la loolu moo tax it bi ma demee ba nga xamante ni si ubbi naa place ñu naan ko studio ma toog xalaat daal man ni studio bi daal waruma ko war a mën a jox benn benn benn benn tur te tuuru Wadduha nekk fi. wallaahi ndeysaan wallaahi ah ma dem ba ci moom. waxtaan ci ak moom. bi ma ci waxtaanee ak moom it wax dëgg yàlla mu daal di koy rafetlu lool kontaan ci lool tamit nag. kontaan ci lool nag wax dëgg yàlla. daal ni ma waaw loolu moom wax dëgg yàlla lu may kontaan lool la. te lu ma bëgg tamit la. ma ne ko waaw man de dama ne woon naa ñëw rek ma laaj la ba xam boo ma joxee weneen tur it ma jël. wallaay ndeysaan nga ko waxee waaw boo ma joxee weneen tur it mu ne ah ma ne ko ma jël. <laughs> Mhm. waaye daal dama ne woon daal place bi daal wax dëgg yàlla naa ñëw ba ci yow tur woo ma jox rek. Mhm. ma tuddee ko ko. Mhm. mun ma Wadduha jooju moom lay tudd. ñu tuddee ko studio Wadduha. studio Wadduha bi tamit soriwul wax dëgg yàlla daara ji ndax booy dugg ci kër gi boo gisee sa côté ndeyjoor mhm. di nga ñu seen ci suufu étage bi mhm, mhm. booy génn it boo xoolee sa côté càmmooñ di nga ñu seen ci suufu étage bi wax dëgg yàlla muy ku yombaleel lépp nag yombalal nañu lépp wax dëgg yàlla jëfee lu ñu dara ni mu ñu yombaleel lépp nag yàlla na ko yàlla yombaleel noonu lépp ak lépp njabootam bépp auditeur tamit boo xamante ni si yaa ngi déglu ci jamono ji ñu toll ñu ngi lay ñaan foo mën a toll nga dollil ñu ko ñaan. jërëjëf waaw foo mën a toll nga dollil ñu ko ñaan. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw foo mën a toll rek nga dollil ñu ko ñaan. jërëjëf jërëjëf boobu. waaw. Mm-hmm. yal na yàlla te yàlla barkeel. amiin la ma la waxoon rek studio boobu yàlla def barke Duha. amiin te yàlla fa yàlla def. <coughs> ndax lu rëy la it fi tabaarakalaa si ñun. kóllëre gi macha allah bu nu ko sàmmit rafetal nga ko mm-hmm. <laughs> rafetal nga ko ndax yàlla si kattanam ñu bëri léegi dan bu nu xamul tur bi sax dan naan ma ndax kooku mooy Wadduha mm-hmm. kon tegtal la si ne am nan sa cër donte du ne noo ko moom mm-hmm. waaye am nan sa cër fa tabarakallah kon na ngi ñaan yàlla def fa barke bala mhm. sa fa yoxti karab bu ko fatarda loolooy sababu tey ma dinaa la présenté soppe yëpp ngir ku si amati itte bu mel noonu rek mhm. si kattanu yàlla bala émission bee jeex da fi bàyyi sa contact ngir nu gën a suuxat ñu ñëpp barab boobu ba yàlla yokk fa barke ndax eh, fa tabarakallah lu rëy la si ñun mhm. sëñ Modou Fall kon xam naa euh, sëñ Malick mën nga am loonu yëkkatil comme tey dafa war a am cadeau yu nu joxe bu loolu da wàccee rek ku jaar si yoon bi nu mën koy jël euh, nga yëkkatil nu fàllu si se bu daanelee rek danañ commencé jël mbokk yi nga xam ne nooy jaar si 33 821 14 85. waaye kooku mooy Seydina naan ko Muntaxa ñi naan ko Mujtaba ñi naan ko Mustafa ñii naan ko saaliw ñii naan ko abdoulahi abdul majid abdul samad sayduna muhammad yaa bëri yaa bëri may aminata yaayam abdala mooy baayam sayduna muhammad abdul maamam makkaleen ko génne nan ko dagay yabaraan daga nar nu bay cosaan diggam leneen lu dul xërëm waaye ñun ñii day ñoo lànk kooka mooy muhammadu rasulullah rasulullah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 hôtel 77 262 36 28 77 262 36 28 Amna.1, point 1 77 571 59 77 77 571 59 77 Boki, yi wa Wadduha njëriñam ëpp na njegam, juromi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 di leen ndokkeel ci at mu bees yi. ñu ngi la koy delloo lu bëri Habib Mbaye premier auditeur Serigne Babacar ak Serigne Modou moom. premier auditeur 2017. <laughs> wallaay alhamdulilah rabbil alamin. yal na yàlla barkeel. dama tëdd rek dégg sabaat wallaay noonu laa jógee daw. wallaay wallaay Mbaye Mbaye ñu lay ndokkeel lu bëri yow it. sa <laughs> maa ngi lay ñaanal fu ma toll. jërëjëf jërëjëf sëñ Habib. maa ngi lay ñaanal fu ma toll di kontaan fi yow. jërëjëf wax dëgg yàlla saa su ne man sama xel mu sew. wallaay xam nañ ko xam nañ ko <laughs> rek laay dëggal. wallaay wallaay. ma ne ku ku am kóllëre nga. jërëjëf jërëjëf Mbaye. yàlla ku am kóllëre nga ku baax nga. jërëjëf sëñ Habib ma ne kenn gënu leen. te ku ñuy te ku ñuy xirtal si diine nga siise. wallaay wallaay Mbaye Mbaye. man loolu rek laa la jàppee loolu rek laa la jàppee. jërëjëf jërëjëf sëñ Habib. kontaan naa bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf tey jii kontaan si bu baax a baax. jërëjëf sëñ Habib yal na yàlla barkeel. waaw di nuyu tamit sëñ Babacar moom. wallaay sëñ Babacar Cissé. sëñ Babacar Cissé. Uh-huh. allo sëñ Babacar. waaw naam ñoo ngi lay ziar. waaw jërëjëf ñu ngi ñu ngi delloo ziar. kontaan nañ bu baax ci woote bi. alhamdulilah ah man de yaay seede rek laay def ci sa rakk jooju. <laughs> dëgg macha allah loo wax rek. am nga am nga am nga rakk ju baax. wallaahi macha allah. am nga. xam nga ku am kóllëre. jërëjëf jërëjëf. Mhm. kuy kuy ku nangoo xiirtal nit si lu baax. dëgg la dëgg la waaye yéen ko jàpp rek. wallaay ñun ñun diina rek lañ ko toppee moo tax lu mu joxoñ rek. yéen a yéen a ko jàpp rek. wallaay dinañ def suñu kéem kàttan buñ mënul si dinañ jéem. wallaay ndeysaan wallaay yàlla dogalagul rek mais. wallaay lépp mën na lépp mën na kay. <laughs> yàlla kontaan nañ bu baax a baax. sama xol moo sama xol dëgg la dëgg la macha allah rafet na rafet na <laughs> rafet yenn yàlla barkel yenn yàlla barkel ko sëñ Habib Mbaye. nga xamne tamuna di ko wax premier auditeur. wallaahi yàlla dafit gis nga ma sha allah mo ñeek dugg ci émission bi yenn yàlla yok ko barke yàlla yok ko xewal yàlla yok ko sam bismillah 33 821 14 85 bismillah allo sëñ Mara wa waaleykum assalam wa rahmatulah yaram ñu ngi leen di siyaare yal yàlla nangu tabarkel man la benn ndongo la bu tudd Ndeye Touré maa ngi lay doo ko woo fii laa tudd sama laal la jàpp rajo bi dégg la déglu naa la nag bu tey ay yoon yoon. Eh, eh, wallaay Touré. waaye nag wax dëgg yàlla ni ngay dégg ngay wax dafa maa neex lool. jërëjëf jërëjëf Touré. ah ma leen di siyaar bu baax di sàkku ngeen ñaanal ñu ndax ay ndaw lañu. wallaay wallaay yal na yàlla def nag eh, te yàlla yokk bu yàlla dogalee daal ñu mën saa ñëw dinañ ndax. baax na incha allah sëñ ba bind naa sa tur comme loolu ma wax si kàttanu yàlla. danaa faral di jaar foofu taximan la fan yii rek dama liggéeyul waaye bu ma yàlla joxee oto incha allah dinaa fa ñëw. na ko yàlla yombal tabarkel ko. Mm. امين امين امين تبارك الله رحنا التري اوكي جريجة خمخة بنين كرة فتلو امين امين امين امين ما شاء الله يلا يلا دغل لب دي خيول ني السنغال جيب ني بوك امين يا امين تري انت بارك الله جريجة جريجة بارك الله بارك الله سيغ باي تري 33 821 14 85 mooy yoon bi sëñ Malick ba amee ku yeglu bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi Cissé soxna Diarra bu Kër Massar. waaw soxna Diarra bu Kër Massar. Cissé eh, ñu ngi siyaara di lay ndokkeel si at bu bees bi. ñu la koy delloo Cissé. Eh, jërëjëf Mbodj Mbodj. ñun day dañu naan dañuy sant yàlla rek. Mm-hmm. la in sakkatum la azidannakum ndax leen la <laughs> ndax comme daaw mhm. yàlla defoon na bi ñu koy naa sant dañ naan alhamdulilahi alhamdulilahi rabbil alamin wallaay wallaay ñaan amin amin amin amiin bokk kooku waa Wadduha yëpp nag. wallaay wallaay mboj mboj mboj ci daraja Seydina nu ngi la koy delloo lu bari di lay ndokkeel. di lay ñaanal fii masawu coono it <laughs> coono yi woote 23 heures yeeg 2 heures di lañ bokk eh, di ñaan yàlla may leen barke Duha. amiin ah, Cissé defal ko seen i njaboot tamit ci yow rek ñun dañ koy xeeb. Eh, wallaay mbooj mbooj dañ lay ñaaral gudd fan gu ànd ak yéen amiin amiin amiin amiin Cissé yal na la yàlla taxawoo. amiin amiin amiin amiin yal na la yàlla aar. amiin amiin amiin yal yàlla sàmm. amiin amiin yal yàlla yokk sa xam-xam. ci dara yi ñu jéem a Muhammad sallallahu alayhi ñaanal nag maa Wadduha yëpp yëpp. jërëjëf jërëjëf yow day macha allah képp kuy mhm. nag dañ lay ñokk ñaanal ñaan ñi ci suñu xol. wallaay jërëjëf Mbodj. di ziar nag sama jooju noonu sëñ Babacar. Babacar Cissé waaw ziar di la ñaanal Cissé. fan eh, eh, eh. bu ànd ak yër. nga ànd ko sa jooju bokk ko. jërëjëf sëñ Modou Modou Fall. Mm. di ziar Modou Fall. Eh, eh, moom xam naa mburu lañ koy indil ak. Eh, ñu la ko boobu noonu ñu la koy ñaanal ci daraja Seydina Muhammad ci barke Duha. wallaay ndeysaan wallaay yàlla nañ dajeeg lu kawe lu kawe sa allah. wallaay wallaay wallaay bu ko ñëwee dama ko naan ñaanal <laughs> rek di euh, Amar Diallo Malick yooyu <laughs> macha allah waay dama naan leen yéen daal yal na yàlla bàyyi sëñ wallaay wallaay wallaay mbëgg yal di ñaanal macha wallaay ñu ngi ñaanal nag. jërëjëf ñu yokk ñaanal gudd fan. jërëjëf nga fàttali wàll ne yaa nekk Kër Massar. <laughs> waaw ñun ñoo nekkee Kër Massar. yaa fa yor frotté cuuraay yeeg yeneen yi. waaw macha yenn saa nag yenn tukulóor yi. man man sama la. yenn saa yi ma séeréer la. <laughs> ma ne dama pare séeréer. <laughs> la wallaay wallaay. Kër Massar maanaam boo jógee ci station Shell bi Mm-hmm. boo doxee doxee tuuti rek ci rond-point bi. Mm-hmm. balaa nga jëfee ko banque bi da ngay duggee ci sa càmmoñ. Mm-hmm, boo doxee tuuti rek di am étage bu gudd boobu cinq étage koo laajte ko soxna ma am jaaree ba ñu ne la mu ngi nii ci kàddu yàlla. wallaay wallaay boo jógee Malika. yal na yàlla fay. amiin si si allah. ci fan la joor ngay tuddee. ko <laughs> ñu def lan lay jotee ñi dëkk côté yooyu waaw man maa ngi ci 77. 733. 97 20. baax na waaw waaw. pour ñu 733 97 20. 17 mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. eh, eh, jërëjëf yenn yàlla ñu ngi leen na jërëjëf. jërëjëf soxna jaara Mbodj bu Kër Massar. yenn yàlla yokk ko barkel si barke Doha. yàlla defal ko defal ko njabootam. bismillah ki nekk si yoon bi. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa soxna Adja Aram Ndiaye. Cissé bu e, Tëngéej. wallaay Cissé Wadduha Tëngéej présidente association ya. Wadduha. wallaay Cissé <laughs> nu ngi lay ndokkale lu bëri di lay ñaanal. ñu ngi ñu di ziar bu baax Cissé. jërëjëf Ndiaye Ndiaye. nga ndokkeel sa at mu bees mi. jërëjëf nu ngi la koy delloo Ndiaye. yàlla suñu borom bu tedd bi subhanahu taala dolli la wér. amiin amiin Ndiaye. yàlla suñu borom sàmmal la sàmmal la njaboot. amiin amiin amiin Ndiaye. maxal ñu la fu yàq yeggul barke Seydina Muhammad. amin amin amin Ndiaye. di ñaanal ñi nga toogal sëñ Babacar ñu ngi koy ñaanal. Babacar Cissé. ñoo ngi la koy delloo lu gën a bari. ñu leen di nuyu bu baax di leen ñaanal. ak Modou fel ak Modou Fall wala moy studio Wadduha moy borom studio Wadduha ni ngi lay nuyu di la ziar ki moy Adja Aram moy présidente association Wadduha ah deug la deug la lay señ yow mom yaang ci biir kër gi ma sha Allah wallahi wallahi wallahi ñun ko bëgg señ bi bëgg nañ la ndax amuñu lu dul mom deug wallahi wallahi moy suñu moy suñu lepp ma sha Allah wallahi deug la deug la sédé wolere bobu ngeen ko sédé légui muy ko am ko wolere wallahi wallahi Aliou moom ak léegi yàgg na mais mu ngi mel ni ñoo bokk ndey ak baay. Mm. wallaay dëgg la dëgg la Ndiaye. te lépp si kóllëre la. wallaay dëgg la dëgg la mm. dëgg la. féete ma fu ma samay waajur waroon féete. wallaay Ndiaye bu féete ma tam fu ma samay mag war a féete. Mm. wallaay wallaay. ma koy ñaanal yàlla suñu borom yàqal ñu ko fi yàq yëpp. amiin amiin amiin Adja. amiin yàlla ba ma ko ñaanal dama koy xeeb. Mm-hmm. jërëjëf te képp ku ko yàlla booleel mm-hmm. sant nu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala dinañ la téye jërëjëf ndax wax dëgg yàlla moo ñu ubbil buntam moo ñu ubbil yoonam mm-hmm, ba ñu ñeme ko wax dëgg yàlla dañ koy moom dañuy ñaan yàlla rek li ñu li ñuy rëccu suñu àdduna rek mooy li ñu yàlla yeex a wanaleeg moom te wallaay wallaay wallaay lépp rafet Njaay a xameeg moom rek moom tey ñaanal surtout association bi yëpp nag di wax ñëpp ngi lay koy wax déwénati. wallaay ndeysaan wallaay Ndiaye ñaanal yokku te ba yëg te doo amiin amiin Ndiaye association bi aussi ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla yóbbu fu gën a kawe suñu. amiin amiin Ndiaye. ndax fu yàlla. wallaay dëgg la yàlla na yokk ñu ngi demal ñu ngi demalante ñu ngi ñëwalante. wallaay wallaay wallaay kenn ku nekk sa daray morom. wallaay wallaay ku ne dina woo sa morom. la. te te loolu dafa rëy si yàlla na yokk. ñu la ñu la nag. yàlla na yow la Cissé yaa ngi ubbi bunte yi wan ñu yoon wallaay wallaay Ndiaye te képp koo xamante ne ànd naa ak yow rek diine la ànd ak yow rek mhm. wallaay yàlla ndax lépp loo defee sa alxuraan nga ko teg wallaay wallaay wallaay li xale yi di wax rek li li li may xale yi wax naan man sa sëriñ du moom du maaman wax dëgg yàlla ndax moom léppam yàlla la saa yu taal ka tey jii am na ku ma woo wallahi azim di wax ci yow ba sama yaram di daw wallahi wallahi te benn yoon la la déglu sa émission yaa suñ mu taxaa dëgg la dëgg la mu wax lu rafet si yow mu ne ma man daal si kii bi laa jëlee sa numéro mais yow ki la yàlla booleel mu ne ma nitu yàlla la macha allah wallahi wallahi mu ne ma dinaa fasanteeg moom wëllëre te te bari na si ay moroom yoo xamante ne dañ lay dégg xamuñu la te bëgg la te gisuñu la xam wallahi wallahi wallahi te loolu lépp may dimbalu suñu borom la. Mm-hmm. dëgg la dëgg la dëkk la Ndiaye ak ak ak waajur yi ñu leen di ñaanal tam yàlla yàlla yeesal. amiin amiin amiin Ndiaye amiin yàlla na leen gënal suñu. ku ñu ku say waajur yar ba nga dof di yare mm-hmm. dëgg yàlla doy na sant yàlla te doy na <laughs> wallaay Ndiaye parce que tamit euh, ku toogaax yow nee naa ku toogaax yow rek am leçon boo jël si yow mm-hmm. jërëjëf si ak tegg ak sutura mm-hmm. ndax sa lépp sutura la macha allah jërëjëf Ndiaye si yàlla fa tabarikàllaa fa dañ lay jërëjëf jërëjëf Ndiaye fan ak wér ak képp Hmm. jërëjëf yàlla nañu ko 2007 association bi yëpp yëpp nag. wallaay wallaay bépp membre bu hmm. hmm. daal dañu yàkkante allah dina am si kàttanu yàlla. maa ngi waxtaan ak kilifa yi pour macha allah. pour def xew boobu nga xam ne daan nañu koy def at bu nekk. Mangisi ndey maa ngi si waxtaan ak kilifa yi bu nu amee ndigg rek si kàttanu yàlla dinañ si waxtaan. am na ko suñu borom mottali. <laughs> maa ngi nuyu ñëpp nag soxna maam jaar ñu génn léegi. wallaay wallaay wallaay. fàttali ñu sa numéro après dinañ jokkoo incha allah. Mhm. waaw 77. Adja Arama mu nekk mooy sama numéro. pour bëgg si association bi. waaw ñu bëgg a adhéré 262 ak ñi nga xam ne am na lu itteewoo tamit si pharmacie Wadduha. si pharmacie bi aussi nañu nañ ma woo waaw. waaw ana sama goro Mouhamed Diop. mu ngi fi. xam naa dugg wallaay yal yàlla yokkal koy xéwal. E wallaay wallaay wallaay. yal na yàlla yokkal ko xéwal. incha eh, eh. allah. waaw. waaw incha allah. wallaay wallaay maa ngi nuyu Adja waaw waaw ndeysaan soxna Seynabou. maa ko am itte la macha allah. wallaay ko am itte la loolu macha allah loolu itte la. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. loolu itte la wallaay sëñ Abib. maa ngi nuyu ñëpp. Alaaji madame Cissé soxna Mati na ma barka démb wallaay wallaay soxna Ulay Ñing waa daf ma doon wari carte yi mu jaayoon ndeysaan ndeysaan ah, ndeysaan waaye na ma dëgg la dëgg la jaay waaw soxna Sanu bu Mbour xaw naa ko gëj a Sanu mu ngi fi nag mu ngi mu ngi ak eh, soxna Adama Sall rek waa Adama Sall aussi wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ku bëgg si carte rek te bëgg adhéré rek mhm. incha allah 262. 36 28 pour ñuy soog a déglu émission bi. waaw mooy numéro Adja Aram Ndiaye bu Tëngéej. Eh, eh, yal na yàlla yokk xéwal. ak barkeeg wér. amiin bég na lool Adja wax dëgg yàlla may ko li nga wax si kolleere rek fu mu ne noo bokk lépp. na bokk lépp macha man man mënuma la fay. xam nañ bu baax. wallaay nga bokk ndey ak baay. wallaay wallaay dëgg la dëgg la. bokk naa sa biir dëgg la dëgg la. dëgg bokk nga dëgg la dëgg la te loolu lépp dëgg la Ndiaye dëgg la dëgg la Ndiaye Ndiaye. maa ngi ziar yëpp. mu ngi lay fay. incha allah lu bari. suñu suñu technicien bi laaxu. walaay ndeysaan alxaaji Alioune walaay alxaaji Alioune. yàlla yàlla beesal yërmande sama. li mu daan def sa émission. walaay walaay ndeysaan wallaay wallaay am itte lool amin eh. mm, amin amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf Babacar sëñ Modou barakallah incha ci kartunu yàlla eh, eh. incha soxna Adja Aram mm. bu waddu xaata ngéej yal yàlla yokk ko barke yàlla yokk ko xéwal yàlla yokk ko wéer ak bépp jullit fi tabarakallah eh, bismillah ki si yoon bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah di seet Talibe Mouhamed maa ngi lay siyaare. <laughs> yal na yàlla nangu tabarkel am nga sëriñ bu baax macha allah Mouhamed Niang maa ngi koy siyaare lu bari imam. wallaay wallaay jërëjëf. di ñaanal yàlla ci barke at bu bees bi. Mm-hmm. yal yàlla yokk ci barke saa amin amin amin Adja ñu ngi foofu yëpp. wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf taalibi Mohamed jël naa tur bi kon nu jokkoo après. waaw baax na yàlla barkeel la. macha allah loolu kolleere la ba tey macha allah depuis ma ko hmm. xamee ba léegi. parce que man a taalibi Mohamed ña ngi lay wax te loolu kolleere la. wallaay tabarakallah mi ngi profité di nuyu tey siyaara Imam Mohamed Niang. di sunu wëllëre. Eh, bisimilah ki si yoon bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Mara ñu ngi leen di ziar. yal na yàlla nangul nu tabarkeel. Amath eh, sëñ Amath neen def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah yàlla na yokk bu. yàlla na yokk amiin alhamdulilah. xaw a gëj a dégg rajo bi parce que 100 point 8 bi man dama ko doon. jàpp waaw 100 point nag depuis si nawet bi ba léegi waxul. waaw loolu la kay eh, eh, eh, léegi da ngeen da ngeen di am mercredi chaque mercredi incha allah seen émission Wadduha si 95 point 5. dëgg la kay dimanche tamit minuit da ngeen am rediffusion. dimanche minuit waaw dimanche minuit. ah ngeen ko am mardi si fajar tamit. mardi ci fajar tamit ak vendredi deux heures du matin. vendredi tamit deux heures. waaw waaw waaw heure yooyu yëpp incha allah man ngeen fa am seen émission. incha allah rabi incha allah keroog sama lay woo di laaj ba xam ndax émission yi parce que mënatuma ko woon jàpp. waaw xam nga si site bi ba léegi dañ si bind almadina bi xam naa looloo tax. waaw waaw loolu <laughs> loolu la kay. incha allah di nga koy am chaque mercredi fii nu ngeen def ak coono yi. ngi sant bu baax alhamdulilah. man de maa ngi waaj ñëw bërëb ba rek. wallaay wallaay yal na yomb te barkeel. maa ngi waaj rek parce que man daal samay mbir moom. Mm-hmm. man du yaakaar rek daanaka moo ci defee sama yaakaar loolu du àndu. wallaay wallaay yàlla baax na si kattanam. waaw loolu daal man doy na waar loolu kii na ma daal jaaxal na ma trop daal. baax na incha allah jël naa tur bi léegi ëllëg nu jokkoo incha allah. dina am lu nu wëllarante incha allah. bu soobee yàlla si kattanu yàlla sëñ Amath

salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi naa def. ñu ngi sant alhamdulilah. naka njaboot bi. Hmm? naka njaboot bi. ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax. naka liggéey ba ñu ngi si jàmm. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. waaw si xew bi laa bëggoon de. si xew bi dañu ko lënd moom laa. doomu baal yokk kàddu gi tuuti. li ngeen di li nga ne dañ koy. waaw waaw jox ma tur bi. man Thierno Ousmane laa tudd. Thierno. Ousmane. Cerno Ousmane baax na jël naa tur bi incha allah baax na cer nu jokkoo waat si kattanu yàlla nu jokkoo ëllëg si kattanu borom bi yal na yàlla barkeel ko Cerno Ousmane bisimilah ki si yoon bi bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam waaw yaram. Cheikh Ahmed Tidiane Diouf Wakaam. Cheikh. Tidiane Diouf ah, Ahmed Tidiane ah, si Wakaam. Diouf. as Diouf waaw waaw Diouf Diouf. Diouf Diouf. xanaa kontaan rek. alhamdulilah Diouf Diouf. ak eh, dëgg la Diouf Diouf. yàgg nañ la ci baax a baax. Eh, ñaan yàlla def ci tuwa. amin amin amin Diouf amin amin amal ñu colère bi nag. amin amin Diouf Diouf. Fassane def yow colère rek moo tax ma woote nag. walaay ndeysaan yal na yàlla barkel la. amin yaa rabbi. yal na yàlla barkel la Diouf. tey ñu suñu sëriñ Cheikh. Tidiane Niang. waaw Cheikh Ahmad Tidiane Niang. waaw wallaay nu ngi koy siyaare lu bëri di siyaare sunu kóllëre sëñ Kalidou Gaye. gën a boole ak yow saa yoo waxee magu daara la sunu référence la tamit. non wallaay wallaay wallaay nu ngi koy siyaare lu bari di koy ndokkeel. waaj naa foofu lu bëri woon ndaxte saa yële waroon naa fa jël si carab bi mais ba léegi mënu. xam nga rek xat-xat yi xat-xatu jamono wallaay wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. jërëjëf jërëjëf yàlla barkeel la. bañ guddal comme ça ñeneen ñu mën a dugg. baax na incha allah Diouf. jërëjëf jërëjëf barkeel fikam jërëjëf yal yàlla barkeel ko. Hmm. di siyaare bu baax kilifa googu comme ni mu ko waxee di Cheikh Ahmed Tidiane Niang. Hmm. di siyaare sëñ Kalidou Gaye di suñu kóllëre eh, fa tabarak la sunu xel di dem si sëñ Khalidou Ba Alassane dañuy koy nuyu bu baax di nuyu soxna ya soxna Aminata ak soxna Aysatu di nuyu turandoo ba tamit di alxaaji Modou Ba 33 821 1485, 85 seen émission Wadduha si radio municipal de Dakar 95.5, ku yeglu foofu rek incha allah dinañ wettali ak moom ki si yoon bi waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa Mara Cissé. sant bi. Camara la man la Mariam. Camara e, Camara. Cissé. Camara Camara. ñu ngi lay ziar yàlla nangu tabarkeel Camara. di la ñaanal gudd fat bu ànd ak wér. amiin amiin yal na yàlla boole Camara. di ñaan yàlla ñi nekk foofu tamit yàlla guddal seen fan. amiin amiin amiin Camara. yow moom li ngay wax si kóllëre moo tax ñun ñuy sàmm kóllëre. wallaay ndeysaan yal na yàlla sàmmal nu ko tabarkel ko. lépp looy wax coloré rek ngay wax. wallaay wallaay dëgg la Camara. mu nekk lu am solo. wallaay wallaay Camara Camara. ndax kuy fàtte démb moom. Mhm. di ko déglu. jërëjëf jërëjëf Camara. chaque jour ñu ngi déglu. jërëjëf Camara. di la ñaan même ñi nekk ci suuf di déglu ñoo ëpp ñu si kaw. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. ma loolu moom dëgg la. dëgg la Camara. yàlla na yàlla guddal fa. amiin amiin amiin amiin yokk sutura na yàlla barkeel la Camara. waaw amiin jërëjëf barakallah eh, sëñ Malick boo mën a am loonu yëkkatil comme 23 seet jot na. diina yaa ma ta dem sa suuf si moo ma ta doon man huwa allahu alladi laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu arrahiimu malikul xiiwal dikkati na jóge ci alaaji Modou Cissé ñu di ko wax Mara Cissé mi leen andiloon karafiil xamsuna qaaf ijaabu rasul samsul bilaat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

xama Moussa Badiou nag daaw allo. waaw bisimilah sëñ Diouf. ma ne Moussa Badiou daaw nag. ah dëgg la Diouf yàlla nañu teewee déwén kon. xam ah, nga na yomb tabarkel. waaw ah, ñu ngi jaar bu baax si Diouf boobu di nuyu sunu <laughs> Diouf <laughs> jël naa tur bi incha allah incha baax na yàlla yàlla barkel la. ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Ousmane Diouf sëñ Thierno Diouf nuyu ak Diouf Marse wala réew yëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara sëñ Moustapha Diouf ba xar yàlla moom it fa tabaarakala borom Mouraaki ba nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal 33 821 14 85 bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man la soxna Seynabou Cissé. Eh, soxna Seynabou Ndiaye. waaw Ndiaye yal na yàlla yokk barkeel. amiin Ndiaye Ndiaye. Cissé. jërëjëf Ndiaye di la ñaanal rek. ci at bu bees bi di la ziar. jërëjëf jërëjëf Ndiaye di ziar ñëpp. yal na yàlla nangu te barkeel Ndiaye. dama ne woon naa woote rek barkeelu. wallaay wallaay jël naa tur bi soxna Seynabou. jërëjëf ñu jokkoo ëllëg si kàttanu yàlla. maa ngi nuyu suñu kilifa boobu toog. sëñ Babacar Cissé waaw ñoo ngi lay fay bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja Seynabou Ndiaye fa tabarakallah doon ku am kóllëre macha allah ku am itte 33 821 14 85 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa Eh, sant bi yaram. Mouhamadou Lamine Mountakha. ah Mouhamadou Lamine Mountakha. <laughs> lay ziar di. yal na yàlla nangu tabarkel jërëjëf eh, baax. alhamdulilah ñu ngi ziar suñu Malick eh, Sidibé. wallaay mu ngi lay fay sama kaddu. <laughs> alhamdulilah mboolem personnel rajo RMD quatre vingt quinze lay fay sama kaddu. <laughs> xam ni tey teewuñu waaye ba. xanaa rek di xamal mbokku mbokku mbokku askan wi. Mm-hmm. Eh, njariñ yu am solo yi nga xamante itam. yaa ngi ci taxaw saa su ne itam di ko jox askan wi. wallaay wallaay wallaay. muy li nga xamante ni li nga xam ne dafa lëndee jamono ji. Mm-hmm, mm-hmm. muy jàngoro ji nga xam ne moo di hémorroïde bi nga xam ne ci da mm-hmm, na jamono ji ñuy wax ci pharmacie yi. dëgg la dëgg la. Eh, li nga xam wàllu la li nga xam ne ndoxum tig yi daf leen a daf leen a sonal. dëgg la. Eh, loolu nekk na loo xamante ni lu am solo waaye proté bi nga xam ni. Eh, kenn mënu koo fàtte. Mhm. itam askan bi itam di ko di ko rafetlu ci ñëpp ñu bëri itam di ñëw ñëw ci man di ma ko di ma ko di ma di ma ci di ko rafetlu. wallaay wallaay wallaay ñu ngi lay ñaanal suñu borom gën yaatal xam-xam. ko lool jërëjëf jërëjëf. waaye yaakaar naa loolu nga xam ne ci jamono lu demee nii tey loole ñëw na. Mhm. wàllu bi. wallaay wallaay wàllu pharmacie bi lu demee ni ndoxum ci fii. wallaay wallaay hémorroïde wallaay dëgg la dëgg la lu demee ni wàllu prostate. Mm-hmm, mm-hmm. maanaam boo am na mboolem yi nga xamante ni produit yi nga xam ci wàllu seetaan jamono ji na. Mm-hmm, te yaakaar naa ni eh, askan wi tamit yow néew kattan tamit si bi nga nekk na loo xam te lu nekk jamono ji wallaay wallaay wallaay nu si sant yàlla bu baax di si sant kilifa gi si liggéeyandoo tamit tabarkalla xam ne macha allah dafa nëbbu léppam ba nee na ma mu ngi noonu daal say loxo. Eh, comme noonu nga ko waxee rek. at mu bees la waaye xéewal yu bees la yoo xam ne yu yokk la si boutique bi. am na solo eh, fa mooy produit yu am solo yoo xam ne dinay dimbale nit. jërëjëf ñu amee jàngoro yooyu nga wax muy. Mhm. Eh, hémorroïde ndoxu siti ak yooyu nga wax fa tabaarakalaate. prostate yooyu yëpp ci biir waaw képp ku jokkoo ak numéro alhamdulilah tabarakallah dinañ la tegtal foo ko mën a amee incha allah. jërëjëf jërëjëf eh, xam na dinañ ko gën a yaatal suñu amee jotaay incha allah. mel ni tey damaa xaw a sore rek waaye suñu xel yëpp. wallaay dëgg la dëgg la ziar euh, suñu sëriñ boobu tamit ci plateau bi. Eh, Babacar Cissé <laughs> Babacar Cissé. Eh, waa kay Cissé ak Modou Fall ak Modou Fall. jërëjëf jërëjëf Cissé sant nañ bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf Mouhamed Cissé yàlla yàlla Mouhamadou Lamine Muntaxa Ba moom it fa tabarakallah bokk si njaboot gi nu ngi ñaan yàlla may ko barke Duha fa tabarakallah comme noonu ma ko waxee xam naa balay émission bee jeex danañ ko gën a détaillé si xew yi nga xam ne yokku na si boutique Wadduha waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi Cissé Cissé sant bi yaram Amadou Touré Touré Touré waaw Cissé na ngeen yendoo. nu ngi sant bu baax Touré. mbaa reer nga ba suur. yaa tudd tur bi de. ah <laughs> man dama laa soxla woon sëñ bi nu may ba gis la. incha dina yomb si kattanu yàlla maa ngi géejawaay. waaw baax buntu lycée Maam Limaamu Laay. waaw dama dégg ni eh, bu bu ma nekkul fii maa ngi foofu incha allah si kattanu yàlla. Eh, ma yaa ngi rajo nii. waaw rajo. yaa ngi rajo ma ne yaa ngi direct si rajo bi nii. waaw waaw dañuy jokkawaat si kattanu borom bi. waaw ma ne dañuy jokkawaat incha allah. allo. waa sëñ yaa ngi ak sama numéro de. waaw. yaa ngi ak sama numéro. waa jërëjëf yoruma sa numéro de. waaw ah, incha allah defal 77. ah. 77. kaay ba jël ko

Yann yalla c'est sen mission émission Municipale, mm. radio municipal 33 821 14 85 33 821 14 85 Yon bobu ngeen jaar pour mën a wettali ak ñun eh, sen émission Wadduha tey fi wettali koog Baba Babacar Cissé de di fi Modou Fall. bu studio wa doha xamna ci kanam tuuti dana def pause mu gëna a détaillé liggéeyam bismillah ki si yoon bi. salaamaaleykum. alaykum salaam wa rahmatullah. sant bi. bismillah. bismillah yaaram. mbokk boobu daf mel dem na. 33 821 14 85. su amee ku yëglu nu jël ko foofu seen émission Wadduha tey nu fi doon mu doonoon émission ndokkalanteeg ñaanalante si at bu bees bi di 2017 ndax ni ma ko waxee woon émission Wadduha ngi commencé woon fii si rajo municipal de Dakar le 13 janvier 2016 yàlla def tey muy 11 janvier 2017 di. at boo xam ne nu ngi def émission bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Mara Cissé. yaram sant bi. ah Ngom la Diène Ngom lañ koy wax. Eh, ndong ngoom Ngom Ngom. ah Ngom Ngom yaram Ngom. Diène Ngom na ngeen doon Diène Ngom ah Ngom. waaw nga xaw a géej dëggante bi tuuti. wallaay wallaay Ngom Ngom. no no no nañ leen direct. wallaay wallaay Ngom Ngom. <laughs> wala ak yéen bu baax a baax. jërëjëf Ngom. jërëjëf jërëjëf Ngom. am am na sama benn mbokk bi may dégg ngay tudd foofu eh, te mu sant Ndour te mu dëkk xama caajaay. Eh, sëñ Abdoulaye Ndour la macha allah. Ndour maak moom ñoo dëkk ñoo dëkk. Eh, wallaay ndeysaan ku baax tam am kóllëre. bu ma jokkoon ak yow nag naa am numéro sëñ Abdoulaye Ndour incha allah bu nu jokkoo dinaa la ko jox si <laughs> kattanu yàlla. incha allah sëñ Abdoulaye Ndour. incha allah bu Canjaay. Canjaay la waaw dëgg la dëgg la. baax na incha allah. jërëjëf incha allah baax na Ngom Ngom. jeen Ngom jël naa tur bi. incha allah jël naa tur bi Ngom. baarakallah yàlla barkeel jokko bi. waaw moom min si loolu teewee ñun ñëpp déwén si kattanam ñun ñu ngi nekk côté côté Kër Massar dëgg la dëgg la seen waajoo ji nekk côté Tëngéej kooku nan suñu wolof du baax a baax moom duñ fay gëj moom wallaay ndeysaan wallaay Adja Aram déedéet Mohamed Mohamed Diop Mohamed Diop wallaay ndeysaan ku baax te am itte ci moom laa jëlee bagage waaw wallaay wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ngom ngom ngom jërëjëf jërëjëf ngom yal na yàlla barkeel ko Diène Ngom fa tabarakallah 821 14 85 bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi sant yaaram. alhamdulilah. man de dama doon woote ndax ndax ci si site bi bi nga fi tijji woon. wadduha point org. waaw mais du ma fay dugg mais léegi dugg ci émission yi. da nga fay dugg waaye. dugg ci émission yi émission yi jàll dugg ko. Euh, doo fa gis émission yi jàll. waaw yi jàll ko gis mais yëpp euh, allah loolu dinaa ko vérifier bu neex yàlla su ko defee moo jokkoo kilifa gi incha allah. baax na dinañ ko seet si kàttanu yàlla. fàttaliwaat ñu ko. Mm-hmm. mooy euh, xobi baax na incha allah waaw fertir boobu baax na. Mm-hmm. na mm-hmm. baax na incha allah. am na solo. ñu jërëjëf yal na yàlla yokk la yaram. incha loolu nga wax dinaa ko vérifier si kàttanu yàlla si leen nga koy xoole si eh, ordinateur walla portable. Euh, hmm? sama portable. waa portable nag du du mën a du la mën a jox euh, émission yi. Ah. faa muy ordinateur. Ah, waaw waaw bu dee portable mën na la jox euh, bind yi ak image yi mais kii bi. émission yi doo ko mën a am si portable. dëgg la dëgg la waaw boo boo doggaan émission Wadduha rek émission yëpp da nga ko fa mën a am. Mhm, mhm. yan yàlla barkeel. jërëjëf jërëjëf jërëjëf incha allah noté naa yi nga wax balay émission bee jeex dinañ ko fàttali konte incha allah. jërëjëf yàlla jërëjëf. jërëjëf barakallah loolu mu wax am na solo si nu fàttali mbir yu am solo yooyu li mu wax tamit si wadduha point org. www point wadduha point org soo fa demee rek lépp lu ma a jaar si mission wadduha yu bëri da nga ko fa mën a dégluwaat. danga nga fa mën a am tamit lépp loo bëgg a xam si ay information 33 821 14 85 bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kañ yaaram. Hmm, yaa. Alhaji Modou. ah Gaye ci sëñ ah, Niger. mën naa jokkoo bi sëñ Modou. <laughs> alhamdulilah Gaye. nekk may jéggal ah, ah. rediffusion yu bëri yi de. ah ma koy jéggal lu bëri de. yow kay amuloo kenn ak. lay ndokkeel di lay ñaanal. ñun ñu nangu ñaan yal na yàlla nangu ñaan bu baax. amiin amiin Gaye Gaye. nu ngi sant bu baax Gaye. alhamdulilah Gaye. di rafetlu émission bu baax macha allah. jërëjëf jërëjëf. Gaye di ziar bu baax di la ñaan. jërëjëf Gaye. yal na yàlla yokk fan yi. amiin nag moom <laughs> maa ngi ziar dëgg la. Угу. Я от него, да, waaw Ndour eh, ñoom Habib boobu ñëpp daal. wallaay ndeysaan <laughs> <laughs> wallaay wallaay. ñëpp daal ñëpp a si jëf. wallaay dëgg la dëgg la jaar baax a baax. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. ma la teral teral na ko. wallaay dëgg la dëgg la. émission bi dama la fan yii dama doon jàpp eh, mënuma ko kii loolu moo tax. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Guèye. jërëjëf sëñ Modou Guèye bu Tëngéej macha allah eh, doon ku am itte macha allah ku pëseef ku am colère Eh, fa tabarakallah nuy koy ñaanal ya, si barke doxa yàlla yokk ko fa tabarakallah mm-hmm. mm-hmm. eh, nu ngi nuy bu baax babacar eh, simaxa babacar ñaax sëñ simaxa ñoo ñëpp nu ngi leen di nuy fa tabarakallah 33 821 14 85 bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Mara Cissé man la Makhtar Diagne Diagne sëñ Makhtar ñu ngi bu baax a baax. alhamdulilah yal na yàlla nangu tabarkeel. waaw léegi mu defal la jàmm defal amin amin Diagne Diagne. Diagne li li nga defal si jërëjëf Diagne Diagne. yàlla yàlla taxawu la. amin amin amin amin Diagne amin. suñu temps damay dem foofu fa lay jëlee cuuraayu bi di dàq séeréer yi. wallaay. ak <laughs> ah, séeréer yi wallaay wallaay. Ah, ah. yàlla barkeel baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diagne Diagne. jërëjëf Mara. jërëjëf Barakallah Diagne. jërëjëf sëñ Maxtaar. Mm-hmm. yal na yàlla barkeel. Mm-hmm. sëñ Maxtaar Diagne. 33 821 14 85.

Eh, dégg la dégg la siis. waaye vraiment sama xol mi ngi sedd. jërëjëf siis. émission bi nag siis naa amin amin kontaan naa amin amin amin et eh, vraiment maa ngi incha allah yal na yàlla nangul nu ko te barkeel. incha allah la woo. allah sëñ Aliou. defal ma noonu ngay defal gars incha allah si hmm. kàttanu yàlla. boo demee allah jërëjëf. jërëjëf yal na ko yàlla ko nag kenn a mën. amiin moo leen julli. amiin amiin amiin képp koo xam ne bu baax yal na ko yàlla. amiin amiin amiin si barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu nag waa tableau bi yëpp nag. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di dégg ci yal na leen yàlla gën a. amiin amiin amiin barakati nabi Mustafa. amiin vraiment sama xol sedd na ci yéen. jërëjëf jërëjëf defalu leen ma dara nag waaye ñii. Mhm. wax ji teeyee. Mhm. ak ku déglu rek am ci njëriñ. jërëjëf jërëjëf si waaye nag yàlla na leen yàlla gën a jox. amiin amiin amiin barakatu sama xol nag moo jeex. amiin mhm. amiin. jërë ngeen jëf jërëjëf barakallah fik. macha allah jërëjëf jërëjëf ci kàttu bi yàlla. jërëjëf jërëjëf. incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yal na barkel barkeel ko sëñ aliyun, eh, di koy wax ne émission Wadduha mercredi bu nekk incha allah dina koy mën am si rajo municipal quatre vingt quinze point cinq eh, fa tabarakallah nu jël ki yoon bi bismillah waaw alhamdulillah bi na ngeen def si eh, ngi sant ah, Serigne Serigne waaw maa ngi saa Pardou waaw. Oh, waa jël nañ xel bi Niang. waaw damay déglu sa émission na yàlla barkeel la. amiin moom ba léegi maa ngi lay woo allah yal na yomb te barkeel de. Hmm? ah si njaay dëgg la. yal na yàlla barkeel ko. ñu ne suba naa ne baax na incha allah na jël nañ tur bi. buntu lycée maam Limaamu Laay bu Géejawaay. ah waaw soo wàccee rek danga nga jàkkaarloo ak boutique Wadduha. d' accord soo demee si boutique bi dina la woon dëkkuwaay bi. nga booy am na solo am na solo. waaw moo may war naa fi émission boo xam ne lépp macha luy jaral njaay la baax na baax na incha allah baax na baax na baax na baax na jërëjëf jërëjëf waaw yal na yàlla barkeel mu mel ne ki sunu amaatee ñett rek mën a téye di téléphone bi ngeen gën a yaatal tuuti bismillah bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah si si waay sant bi yaaram du Ndiaye bu Tëngéej. ah Ndiaye sëñ Mamadou Ndiaye. waaw maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu tabarkel Ndiaye. gëj naa dugg nag léeg-léeg nit ñi moom am problème waaye ñu ngi dugg. Mamadou Ndiaye bu Tëngéej amul amul leneen loo daan waxte xanaa amu ñaar aram. <laughs> Eh, waaw dama ko ah. jaawale ki doon woote di wax photographe Wadduha. <laughs> ah déedéet non bokkul eh, boobu bii mooy bii mooy bu bu eh, aram kon bisimilah. Ah, alhamdulilah la. dëgg la ndeysaan wallaay dëgg la dëgg la. naka ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah Ndiaye. ñu ne woon na sa oote ziaral ko guñu nañ dugg fan yi ñu ngi amoon problème ci man rek wallaay dëgg la dëgg la kay waaye mu normal tey rek ma ne comme dugg xaar mu dugg ziaral bu dëgg la dëgg la jël naa tur bi incha allah bu ëllëgee nu jokkoo si kàttanu yàlla incha allah jël naa tur bi baax na njaay jërëjëf jërëjëf njaay jërëjëf yàlla yàlla barkeel 33 821 14 85 mooy yoon bi ngeen jaar seen émission Wadduha bu amee ku ñëw rek sëñ Malick be nu jël ko suñu jëlaate ñaar nu yaatal tuuti ak sunu mbokk yi nga xam ne moom lañ fi wettali kontel tey 33 821 14 85 mooy yoon bi sëñ Babacar bu te da am loo looy jàllale. waaw ah, sëñ Mara comme lañ doon jàllale rek. Mhm. li nga xam ne bii nit ñi dañ koy xaw a yittewoo muy affaire mhm. borom bopp bi ñu doon jàllale. Eh, ñu jël ko si yoon bi بسم الله بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من محمد سولات ساو سن مامدو مامدو من دمي وقت أم داني دلو سان خواجنا مولو دمي يكاد من دمي دمي يكاد دوا كي لما جنت سو خيرا مكيفاتي waaw te lu ma commencé aussi boo moytuwul du egg. baax na incha allah jël naa tur bi bu ëllëgee nu jokkoo si kàttanu yàlla. baax na saw baax na mm-hmm. yal na yàlla barkeel jokko bi sëñ Mamadou mm-hmm. Sow yàlla dàq gàllankoor yi. Mm-hmm. yàlla ba tey xéwal. fa tabarakallah seen émission Wadduha si rajo municipal 95 point 5 33 821 14 85. tey nu fi wettali kon teeg eh, sëñ Babacar Cissé waaye nu fi wettali kon teeg Modou Fall bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi balaa ñuy wax. jëlal mbay ji sa numéro laa ba soxla sa numéro si direct. waaw boo defee 617 70 44. 617. 70 44 boo jiitelee 77. waaw 617. waaw. 617. 70. 70. 44. 44. waaw merci. baax na waaw xam naa dinaa jokkoo ak yow. baax na joxoonu tur bi de. waaw euh, Samba Thiaw. baax na sëñ Samba. waaw Samba Thiaw baax na waa kay yal na yàlla barkeel la baax na jërëjëf mu mel ni kii suma juumul am na. 24 20 ah, ñu jël seen tur waa.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 ñuy fàttaliwaat rek mbokk yi ñi nga xam ne dañ doon yittewoo wàllu borom bopp daan ko laajte eh, ñi ngi koy yore fii ci lycée Limamou Laye képp koo xam ne bii yittewoo na ko rek boo ñu wooyee ci numéro téléphone bi muy 377 358 87 92 boo ñu wooyee dañ jokkoo ak yow ci mbaaxu yàlla incha allahu rabbi yàlla dana def ne li nga ci doon sàkku yàlla dina ko saafara waaw ndax. am na solo borom bopp. Mhm. mooy feebaru lan nan lay manifesté woo. waaw borom bopp maanaam ni muy manifesté ci doomu aadama. Mhm. su fi su lay commencé dafay mel ni ay puso yuy jàmm. Mhm. suwaat dana jàpp nit da koy jàpp ba lex yi di new yi wala bët yi new yi. mu mel ni ay sànqaleñ mooy dox ci yaram bi. yenn saa yi dafay dem ba pour nga lekk sax doo ko man mhm. mhm. loolu lépp borom bopp daf koy def mhm. waaw mais ko noonu lay manifesté woo de waaw eh, eh, baax na kon ku koy teewoo rek moom yàlla denk na la yoon yoo xam ne daf koy saafara. incha allahu rabbi baax na incha eh, ak leneen la doon baaxi mbokk yi. doon baaxi mbokk yi mooy tamit ñi nga xam ne dañuy faral di am tànk yu metti ci mbaaxu yàlla it am ci yàlla baaxee. incha allahu rabbi Mhm. lépp si benn numéro bi rek ku fi ku ci woote rek ci kàttanu yàlla dañ jokk ak yow. Mhm. waaw. Mhm. moo xam ni tey xele boo xam ne dafa të doxit ci mbaaxu yàlla. incha rabbi bu ñu yàlla def ni. bu yéex dox wala bu dox waaw. waaw incha rabbi. am na solo. waaw am na solo sëñ Babacar. Modou Fall eh, borom waaw ñun ñuy dolli suñuy kàddu rek ma ne ko wëllëre Wadduha bu la soxla woon moom nan ngay liggéey. waaw wëllëre Wadduha boo xamante ni si soxla nga ñu rek. Mm-hmm. man ngaa jokkoo ak ñun ci numéro téléphone yi ñu bëgg a joxe nii. Mm-hmm. muy 77. 658. 28. 51. 77. 658. 28. 51. wala nga jël 70. 912. 29. 62. 70. 912. 29. 62. disponible nañ tamit wax dëgg yàlla suur bu nekk. Mhm. Mhm. bépp suur bu mën a doon rek heure bu nu wut soxla daal. Mhm. incha allahu rabbi boo ñu wooyee ci kàttanu yàlla. dinañ nekk say itte incha allahu rabbi. ngay yëngatu pour ñi nga xam ne nu ngi koy door a nu ngi dab émission bi. waaye ñi nga xamante ni si ñeen ngi doog a taal seeni rajo du doog a dab émission bi. Mhm. ñun ñoo ngi yëngatu ci photo ak mhm. caméra. Mhm. ci wàllu reportage daal boo xam ne cérémonie boo mën a am. moo xam jàng la. moo xam ngénte la. moo xam takk la. moo xam ciit la moo xam mariage la. maanaam bépp cérémonie bu waaye mën a am daal. soxla ci lu demee ni caméra wala photo mm-hmm. incha allahu rabbi boo ñu contacter ak foo mën a nekk rek ci biir mm-hmm. Dakar mm-hmm. wala foo mën a nekk ci région yi ñun disponible nañ pour di la déglu képp koo xam ne soxla nga ñu daal fépp foo mën a nekk incha allahu rabbi ci kartonu yàlla bu nu jokkoo rek incha allahu rabbi dinañ ñëw ba fa nga nekk defal la li nga bëgg ca na ko bëggee ci kartonu yàlla incha allahu rabbi waaw ci numéro yi ñu joxe wallaay looy wax kon soppe Wadduha soppee Wadduha yi yëpp mhm. tamit maa ngi leen di jaajëfal wax dëgg yàlla mhm. te di leen gërëm tamit mhm. te di leen wax ni leen wax dëgg yàlla yéeg nañ yitte gi yitte ji yëg nañ ko yitte yi ngeen amal euh, euh, émission bi yëg nañ ko wax dëgg yàlla di leen wax tamit ni leen ñun ñoo ngi nii ñun ak yéen ñoo ko bokk fépp foo xamante ni si dégg nañ fa benn soppe Wadduha boo xam ne am na benn itte ci ñun numéro yi ñu joxe bu ci wooyee rek incha allahu rabbi dinañ jëm ci carton yàlla incha allah ba gisee moom. Mm-hmm, mm-hmm. bépp soppe bi Wadduha Hatmi fu mën a nekk muy góor muy jigéen. Mm-hmm. auditrice wala auditeur fu mën a nekk. ah ñu ngi koy tàll sunu loxo. di leen wax ni leen bisimilah ñoo ngi leen di déglu daal. waaw ñoo ngi leen di déglu daal. fépp fu ngeen ñu soxlaa daal. ñoo ngi déglu seen kàddu insha allahu rabbi mm-hmm, ci mm-hmm. kàttanu yàlla bu neexee yàlla mm-hmm, bépp soppe wadduha bu ko déggit bu la neexee nga dégtal ko sa morom insha allahu rabbi te xam ne ñun seen seen seen seen seen yéene ak seen mébét ak seen i bëgg-bëgg ñun moom lañ ci toogee lépp nag ñoo ngi ko jëlit teg ko ci kilifa yi nga xamante si moom lañ toogal fii ci kàddoom aussi tamit la ñuy wax ak ci mbaaxam mm-hmm. ndax ci mbaaxam wax dëgg yàlla moo waral lii nii tey mm-hmm. Mm-hmm. nit ki mën na la defal lu nekk waaye wax dëgg yàlla kele ne kaay ñu ànd baax kooku mënoo koo fay sunu waajur daanañu wax nii la ñett yi de ku la ko defal buñ la nee dalaa bañ boo ko gëmee dalaa neex mu ne ku la tudde doom mhm. bu dee ci jamono bi ñu nekk mu ne ku la wutalub liggéey mhm. fooy xëy di mën a ameb dépasse mhm. wala mu tudde la doom wala mu may la soxna nee na ñett yi ku la ko defal ci kaw suuf bu la waxee ni la diw da laa bañ nee na boo ko gëmee da laa neex kon wax dëgg yàlla sëriñ Maaraam yi ñaan yàlla nañ ko yàlla dolil sutura amin yàlla nañ ko yàllal dolli sutura àdduna ak sutura àllaaxira yàlla sunu borom mi nga xam ne kum sàmm nga sàmm yàlla na ko yàlla sàmm. amiin yàlla na ko yàlla dollee xaar. amiin yàlla na yàlla dolli xam-xam bi. amiin auditeurs yi li ñuy wax nii sànq defe naa ne am na ci loo xam sax dañu koo xamuñu ko wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñun ñu dëkk ak yow ñun ñoo ko xam. Mm-hmm. waaw ñun ñu dëkk yow. Mm-hmm. ñun ñoo ko xam. ndax euh, yar bi ak xam-xam bi lenn lu ci nekk. loo ci am rek boo ñëwee ba ci moom rek dangay ngay commencé waat jàngaat en zéro yor boo mën a am rek boo ne salaamaaleykum ci moom da ngay commencé waat dalaat naka la ñuy yaroo xam-xam boo mën a amit boo commencé waatee ci moom boo ko dégloo rek da ngay commencé waat di dal baax kon wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax yàlla mi nga xam ne moo ñu xamale ak moom yàlla mi nga xam ne moo ñu boole ak moom ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax di dolliwaat di ko ñaanal bu baax di dolliwaat di ko ñaanal tamit yàlla jubale ko ak magam ji mu bokk toogal. yàlla na leen yàlla sunu borom jubale. yàlla na yàlla sunu borom dëppale seen i mbir. te dolli seen i wërsëg. amiin bépp soppe Wadduha daal foo mën a nekk ñoo ngi lay ñaan nga ñaanalal ñu Alaaji Mara Cissé mii. ñoo ngi lay ñaan ci kartanu yàlla nga ñaanal la ko yàlla fiq fanam. yàlla guddal aw fanam. te wéral ay cëram. ndax bo fanam guddee te ay cëram wér hmm. ah, ragal nañ wax dëgg yalla lu bare bare bare bare bare bare dina ko sansi ci réew mi lu wér ah lu bare bare dina ko sansi ci réew mi kon nañ ko ñaanal yalla na yalla guddalu hmm. hmm. fanam te wéral ay cëram yalla na guddal fanam te wér ay cëram man nak wax dëgg yalla sant ko bu baax a baax baax a baax ndax lii moom mbëggeel munu ko paase mbëggeel munta paase lii ku la la kan dem nga jariñu munu ko paase ndax tey rajo bi mu ma woo ma jotul ni sama kàddu nii fu rajo bi àgg tey sama kàddu àgg fa mm-hmm. ginnaaw yàlla yonent bi moom la mm-hmm. kon ñoo ngi ko koy sante bu baax mm-hmm. di ko sant tamit directeur rajo bi eh, bu baax a baax a baax a baax waaw moom itam di ko ñaanal yàlla wéral ko te guddalu fanam yàlla na ko yàlla wéral te guddalu fanam bépp auditeur daal ak bépp auditrice boo xamante ne si yaa ngi déglu ñoo ngi lay wax ni la numéro yi ñu joxe nii léegi daal foo mën a nekk ci biir réew mi mm-hmm. insha allahu rabbi boo ci jokkoo ñun mm-hmm. ak cérémonie boo mën a am bu mën a doon mm-hmm. boo ci jokkoo ñun rek wax ñu insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla dinañ fa teew insha allahu rabbi defal la ko nanga ko bëggee ci kàttanu yàlla insha allahu rabbi waaw suñ portable amul benn heure boo xamante ni dina fay Mm-hmm. heure boo ñu wooyee rek di nga ñu jot incha allahu rabbi mm-hmm. heure bu mën a doon boo ñu wooyee rek incha allahu rabbi mm-hmm. di nga ñu jot ci kartanu yàlla waaw ah, yëf yi nag lenn loo xamante ni si diis na wala jafeel nañ ko amu ci lu mu ci mën a doon nu sa poos toll rek incha allahu rabbi dinañ la defal na ko bëggee ak nu sa poos mën a toll rek dañ la defal na ko bëggee incha allahu rabbi waaw ah, ak nu sa poos mën a toll nag waaw ak nu sa poos mën a toll rek ko xeeb ko neel daal lii laa bëgg incha allahu rabbi ñu defalal la ko na ko bëgg ci kartunu yàlla. macha allah waaw loolu daal. Mm-hmm. incha allah moom lañ doon jotal mbokk auditeurs yi ak mm-hmm. auditrices yi mm-hmm. waaw di leen xamal ni tamit dëkkuwaay baa ngi ci wetu daara ji rek géejawaay lii si Limaamu Laay ba tey foofu la studio bi nekkee studio Wadduha studio foofu la nekkee <laughs> yàlla yàlla barke amin ya rabbal alamin yàlla yokk fa barke amin ya rabbal alamin jërëjëf sëñ Modou nañ ñëpp nag wax dëgg yàlla koñ ban dëkk tamit sant nañ ñëpp wax dëgg yàlla waaw sant nañ ñëpp daal mënuñoo lim ndax ña fa nekk ñëpp suñuy kóllëre lañu suñuy nit lañu ndax ñoom ñëpp am nañu yëg ci ñun mm-hmm. am nañ ite ci ñun jërëjëf koo ci xam ne rek am nga soxla ci ñun wax dëgg yàlla da ngay ñëw wooñu mm-hmm. kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wax dëgg yàlla jërëjëf kon Mara Cissé yal na yàlla guddal fan wi te wéral cër yi yal na yàlla guddal fan wi te wéral cër yi bi jaay ni bilu saa sallallahu alayhi wa sallam amin amin jërëjëf sëñ Modou Fall bu studio Wadduha sëñ Babacar xam naa nu bàyyal la rek ay cinq minutes bala noo tàggatoo waaw jërëjëf sëriñ sëriñ Mara xanaa mhm. li ñuy wax rek kàddu yu tàggatoo lay doon. Mhm. di gërëm sëriñ Moudou Fall mi nga xam ni ci kàddoom yu rafet yi. Mhm. macha allah jotal na lépp. di rafetlu itam auditeurs yi ak auditeurs yi nga xam ne woote nañ fi. seede bi nga xam ne seede nañ ko. li nga xam ne moom la sëriñ Moudou wax rek. ci mbaax gi ak laabir geeg teg nit ci yoon loo kàccoore kàccoor boo taxawee ci bunt kër gi rek da nga daal di yaraat sa bopp te kenn du la wax ne lii la soo duggee ci bunt kër gi danga xam fii lan moo fi nekk noo mën a mel rek danga danga da nga wu bu baax xoolaat sa bopp soo fa génnee danga am beneen yoon boo tegu kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw di jaajëfal ñëpp di fàttali mbokk yi rek Mhm. ne comme li ñu baaxee ci mhm. wàllu borom bopp yi képp ku ko soxla boo wootee mhm. ci 77 358. mu noo koy fajee moom day téere lay doon wala looy naan wala looy suuro. waaw du du nekk téere. du nekk looy looy naan. macha allah dañ koy defar li nga xam ne danga koy suuroo. waaw soo koy suuroo tamit. comme ni nga xam ne bi noonu la nekkee ci yow mhm. dafay wàcc comme ni laalo mbéb di di génnee mhm. noonu la nga koy sottee ba mu arrêté mu leer la ne loolu moom nekkatul mhm. waaw incha allah li ñuy wax wet di gis bokk ci wallaay wallaay waaw képp ku fa jaar moom xam nga li ñuy wax lan la waaw su dee ci wàllu tànk buy métti kasaalika noonu la su dee ci wàllu xale yi ñu waxit noonu la fay laal am. wallaahi wallaahi wallaahi kon loolu la ñuy jo jox mbokk yi. Mm-hmm. di tàggatoo ak ñoom di leen wax. Mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mm-hmm. ku itteewoo yooyu nga wax ban jokkuwaay la lay woowee. ñu ngay woowee ci lycée Limamoulaye. ban numéro. 358. 87. 92. gannaaw ba mu defee 77. waaw. baax na sëñ Babacar yal na yàlla barkeel allahumma amiin Mouhamed Fall yal na yàlla barkeel yàlla barkeel barab ba yokk fay xéwal tey dama ne woon émission ndokkalante la ñuy def rek ndax ay semaines yu bare ngi nii émission direct amul woon ma ne woon dina ndokkalante ak wëllëre yeeg soppe yi dëgg la comme nanu taamu di leen koy defal weer bu nekk wallaahi macha allah lim boo xam ne day am lu nu wëllëranteel tey ñi yàlla def nu woote. Mhm. si kàttanu yàlla sunu jokku ëllëg. Mhm. Eh, ku si woote rek du ñàkk danan seet loo xam ne dina gën si yow nu mën ko wëllërante incha allah lépp si barke lépp si barke eh, Wadduha tabarakallah mhm. di ñaan yàlla ni nu ko defee eh, janvier 2017. yàlla kàttanal nu. yàlla sàmm yàlla aar. amiin ba nu toogaat fii jotaay janvier deux mille. amiin yaa rabbi dix-huit. Mm. tabarakallah nu ma ko xam si bi bit yokk sant bu baax. Mm-hmm. rajo bi ndax fukki weer ak ñaar du ñaari fan. Mm-hmm. ay fa tabarakallah nu fee yaatal si lépp lépp mm-hmm. di sant bu baax euh, sëñ Sidi bi bi nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool. Euh, di sant it ñi nga xam ne noo fi nekk. di def ay émission yu mel ni kii yii nuy def. Euh, dañu si jiital Cheikh Ahmed Tidiane Niang. di sunu wëllëre. Mm-hmm. fa di sunu mag. Mm-hmm. di nu koy rey si lu bëree bëri tamit. Mm-hmm. si dëggu gi. macha allah. si tawxiit bi yooyu yëpp. bokk naa si ay auditeurs am yoo xam ne mën naa ne depuis 2003. ba léegi si fa tabarakalaa na lu lu muy wax te duma koy teewlu. ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara. di nuyu bu baax tamit fa Eh, mbokk mi fi nekk dimanche fa tabarakalaa sëñ Tafsir Thiam. dañu mhm. koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal. Eh, di fàttali ñëpp comme ni ko Mouhamadou Mountakha waxee ne boutique Wadduha. Mhm. si mbaaxu yàlla yàlla def na eh, mu am ay gan. Mhm. gan yi mooy produit yu bees yoo xam ne si mbaaxu yàlla ak ndimbalu kilifa gu baax moo ko fa bàyyi. comme nu fa Serigne Moustapha Diouf bàyyee Mourake Touba mm-hmm. te ñu bëree bëree bëri di si barkelu mm-hmm. gis si ay xéwal tamit mu bàyyi fa ay produits yoo xam ne pour hémorroïde la. Mm-hmm. ndax yàgg naa di wax ne ñun la ñu yàlla jagleel. nu am lu nu sa doon it am lu nu jagleel. mooy alxuraanul karim. loola la nu xam. waaye it fa tabarakallah lu si nekk xam gaa gën réere gi. te xam-xam dafa yaatu. sunguf ak xas ak reen yàgg fi lool it mm-hmm. man lu bëree bëri fa tabarakallah mm-hmm. doon mbokk moo xam ne ko si yàlla may la mm-hmm. bàyyi na fa ay produits yoo xam ne yu am am am solo la lu muy dox si lu mel ni hémorroïde si lu mel ni hémorroïde muy dox tamit si ndoxu siti waaye muy dox tamit si koo xam ne bëgg na yàlla yokkal ko kattan dem na ba si prostate comme ni ko Mouhamadou Moutakha waxee. Mhm. dem na ba si ñi nga xam ne seen ndox day faral di néew seen mhm. ndoxu sëy mhm. yooyu yëpp fa tabarakalaa daf say dox. xam naa képp koo xam ne jokkoo naag boutique Wadduha dina ko ko gën a leeralal. fa tabarakalaa du ñàkk du yàgg dara da ngeen ko mën a am tamit Tëngéej. waaye dangeen ko mën a am Kër Massar. da ngeen ko mën a amit euh, it Point E. fa yooyu ay. xéewal la yoo xam ne dafa yokk woon si boutique bi. Mhm. Mhm. noo leen ko doon fàttali. Mhm. Eh, si kàttanu yàlla képp ku dem si boutique bi rek di nga ko mën a di nga ko fa mën a am. ndax yàlla def na mu jàppandi fa fi nu toll. fàttali leen numéro boutique bu Wadduha. 76 la 310 95 60. comme na ngeen ko déggee si annonce boobu cuuraayu seytaane yi kiis yi. toj liggéey bayre yooyu yëpp fa euh, euh, ma nga fa. Mhm. nekk noonu gàllaaju njaboot. Mhm. Euh, cuuraay offertir yooyu yëpp fa tabarakallah yu nu ba pare nga xam ne soo fa demee rek di nga koy mën a am. Mhm. gàllaaju kër yooyu yëpp ak gàllaaju jigéen ju wérul. ak yi nga xam ne bii xaj na fàtte limunu ko. mais képp ku jaar si wadduha point org. www point wadduha point org. bépp information boo fa bëgg xam da nga ko fa fekk. fa tabarakallah ku dem si boutique bi yooyu yëpp am na fa. Mm-hmm. niki noonu mm-hmm. point un. Mm-hmm. ku fa demit da nga mën am yooyu yëpp nu wax si 70. ngay jaar 922 23 75. 70 922 23 75. su dee Kër Massar su dee Tëngéej si sunu jigéen Aja Aram. Eh, fa tabarakallah ak eh, Mohamed Diop nga xam ne ngi si route nationale bi si rond point route nationale bi si station sel bi boo fa taxawee rek da nga gis boutique am boutique Wadduha bi nekk Tëngéej. Hmm. wala nga woote si 77. 262. 36 28. 77 262 36 28 mooy hmm. Mouhamed Diop. Hmm. su dee Kër Massar euh, soxna Diarra Mbodj boo jaaree si 77. 733 97 20 soo fa jaaree da nga ko mën a jot su dee Mbour fa tabarkala sunu jokkoo rek dinaa la jox numéro soxna Ka. dinaa la jox numéro nga xam ne mënu nekkal Mbour Saly Carrefour. Mm-hmm. fa tabarakalaa yooyu mooy numéro boutique gu Wadduha mm-hmm. eh, di fàttali ñëpp ne dëkkuwaay bi buntu lycée dinaa Limamou Laye bu Géejawaay. Mm-hmm. boo fa wàccee rek da nga jàkkaarloog boutique bi. soo demee si boutique bi dana la woon dëkkuwaay bi boutique bi ak buntu lycée bi noo def en face. buntu bi nga xam ne moo den rek tali Pikine bi soo wàccee rek da nga jàkkaarloo ak boutique Wadduha soo demee si boutique bi dana la woon dëkkuwaay bi lu dul bésu aljuma si kàttanu yàlla incha allah ku fa ñëw si kàttanu borom bi. yàlla mën na yombal gisee bi. nanu yàgg di koy waxee rek. nu ñaan képp ku fa ñëw yàlla jiitu la fa. ba doo fa gis lu sa yaakaar tase si kattanam. mais ku loolu doon fàttali la. numéro Wadduha mooy numéro bi nga xam ne moom ngay jotee Mara mooy 77 617 70 44. fa la ku fajar jaar rek danañ jokkoo direct mbokk yi ni dalaloon tey di sëñ Babacar Cissé di sunu mag fa la waay juróom ak sama waay jur bokk nday ak bay mm-hmm. tey ñoom ñëpp na nga bar sàq na nga ñaan yàlla beesal seen yërmande. fa tabarakalaa di ñaan yàlla nu yàgg fi lool di leen di ñaanal. moom lañ fi doon wettali konteeg tey comme noonu ma ko waxee nee na yëngu si borom bopp danay yëngatu tamit si tànk yuy metti dina yëngatu si xale bu doxul numéro ba ngeen ko mën a wooyee nee na 77 la 358 87 92 358 87 92 nu wettali kontu fiit ak mbokk boo xam ne wëllëre la wëllëre la fa laa bu yàgg sax muy Mouhamad muy Modou moom fa tabarakalaa yëngatoom doon si photo ak caméra moo ubbi studio tuddee ko Wadduha mm-hmm. fa tabaarakallaa loolu di kollëre ñu ñaan yàlla defal ko fa barke Duha na nu ma ko waxee nga ko ko ittewoo rek mën a mm-hmm. jokkoo ak moom si 77 658 28 51 77 658 28 51 mooy numéro yi nga xam ne moom ngeen mën a jotee ma moo sëñ Modou Fall mm-hmm. fa la képp kuy tëwoo yu demee ni ki photo wala mhm. caméra mhm. événement bu mën a doon comme mhm. noonu ma ko waxee ne disponible na ak heure bu mën a doon ak fu mën a doonee di ñaan yàlla yokkal ko si barabam boobu barkeek xéewal yu yaatu macha allah di <coughs> sant bu baax it ñi nga xam ne noonu nekk kër gi te nuy jàppale si liggéey bi comme ni ma ko waxee woon si tàmbali bi di eh, Omar Diallo ak Malick Sock Badiane ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di lay ñaanal yàlla yokkale ni xéewal nekki noonu yaayu Mouhamed nga xam ne moo nekk si boutique bi moom it ñu ngi koy ñaanal fa tabarak la allah euh, sëñ Malick euh, am na mbokk bu fi laajoon Mouhamed ak Ahmed pour nu fàttali ko bu nekk 35 la lu baax la si luy raxas xol comme noonu nu ko waxee woon ne xol bu setee rek lépp jag te baraana lu ni di def si safaan xol bu tilim moo ko ko yóbbee kon ni yére di tilimee yaram di tilimee kasaa xol yi noonu lañ koy war di fóote yenn saa yi si ñaawteef. Mm-hmm. ba xol gu booba leer ak imaan ak ihsaan rek nekk sa. Mm-hmm. nee na dinay baax lool nag xel bi nga xam ne danga bëgg mu jub. mu mm-hmm. nga bind Muhammad rasulullah 35. bind Ahmad rasulullah 35. soo paree def ko ndox bu bëri mu di koy naan. fa tabarakalaa di di wax ne nan di naandal xale yi bu baax si alxuraan. Mhm. nu si naan ba ñaq. Mhm. ndax léegi boo dee seet jamono seyaatin yi bëri na. Mhm. ba amaana sooy lekk di lekkandoo ak ñoom. sooy naan di naanandoo ak ñoom. boo tëddee tëddandoo ak ñoom. fa yooyu yëpp nag ngir di say mucc. ba dunu la taq si biir ak bitti. dunu la dugg fenn. te say baax ngay man nandal sa yaram. si leeru. alxuraan mhm. wala leeru turu yàlla mhm. mooy tax day baax lool ordonnance yi si boole alxuraan mhm. boole ko si waaye di si koy jëfandikoo bu baax a baax a baax ba nga xam ne yàpp baag yax baag dërëj ji lépp fa tabarak laa leeru alxuraan daf say nekk kon ahmad rasulullah mahamad rasulullah bu nekk 35 la koy def def ko ndox bu bari ak sam-sam di koy naan dina ihdina siraatal mustaqiim yàgg naa koy wax ku bëgg nja sa njaboot du nekk tànneef doon ku jub soo bindee fatiha ba si mustaxim nga baamu li mu turam si mustaxim mm-hmm. nu mu tudd rek nga jëm a xam chiffre turam nga baamu ko si mustaxim mm-hmm. soo paree nga àggale fatiha def ko ndox bu bari mu di koy naan mm-hmm. si kattanu yàlla doo gis si moom safaan te mooy dana doon koo xam ne kuy jub lay doon te def naa loolu jar na lu bëri jar na lu bari si eh, nan koy waxee ne nan di teel a préparé yi ndax nooy bànneexu ëllëg ak mbégte ëllëg. Mhm. Eh, mooy ka nga xam ne yàlla may na ko njaboot. mu mhm. fexe ba njabootam tege si siraatul mustaqim. Mhm. dundandoo ga njariñ lay doon. te su ko fi bàyyee tamit fa tabaaraka laa njariñ la du dakk ndax fu mu jullee rek yónnee koy xaddiya na ma ko daan toppatoo si dundam bu làqoo yi noonu la koy toppatoo ndax du xëy ba jant sa mukk te yónneewu ko ndekki ak añ ak mooy bu jullee fajar yónnee koy ñaan bu julee tisbaar yónnee koy ñaan mm-hmm. su julee tàkkusaan jox ko njoganalam bu mm-hmm. julee timis jox ko reeram fa tabarakallah mm-hmm. loolu jar na lu bëree bëree bëri kon nu ngi ñaan képp ku si yàlla may njaboot lépp loo man rek si mu jub nekk tànneef Eh, nekk saale nga gën see góorgóorlu sa kéem kéem kéem kattan te xam ne loolu ba na fii su àddina ba sa gën a rëy mhm. loolu bokk na si fa tabaarakalla te ñaar yooyu ma wax yoon yu am am solo la si ki nga xam ne dafa bëgg lum njabootam di jub ma mhm. waxoon fi ma fàttale fii eh, alal masrah yi ma waxoon mhm. ak xobu poftan yi ngir ku xam ne dafa bëgg yàlla eh, dindil ko kumute dinaa di wax ne alam nasrah boo seetee am na suratul waaqia am na kaamil yoo xam ne quatre-vingt-seize aaya lañ ko def mhm. waaye am na si yoo xam ne quatre-vingt-dix-neuf la ko def mhm. su ma nee am boobu nag day ut quatre-vingt-dix-neuf xobu poftan mhm. bu si nekk mu bind si alam nasrah su paree xob yooyu daf koy wo weer ba mu nekk sunguf ba mu wow mu fexe mu nekk sunguf sunguf boobu fa tabaarakalaa lu ko ko jëfandikoo rek si kàttanu yàlla yàlla dana la dimbale nga tàggoo kumute waaye la see gënin nga bindaale ñetti sóoratul waaqixa soo bindee soratul waaqixee def ko saafara tibb sunguf ba def si li koy sangoo dalay faxasal ko mu si kàttanu yàlla mm-hmm. ak barke waaqixee yoon bu am am solo la yoon bu rëy rëy la si dindi ko mu te mm-hmm. mel ni kii àgg na si catu waxtu bi mm-hmm. fa tabaarakallaa lu si safaanu rek nu ngi koy jéggalu di sant bu baax tey gërëm ñi nga xam ne noonu fi doon wettali di sëñ Babacar Cissé ak euh, sëñ Modou Fall. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla yokkal leen xéewal di wax na di incha allah ndaje yi du géej bu neex yàlla. ndax fii daara la. Mm-hmm. dañu ñëpp mën fi wettali di sant bu baax tamit sëñ maalik mi nga xam ne moom lañ jàkkaar lool. mu mm-hmm. nekkaloon na si technique bi. lépp lu jub si kàddu yi nu koy sante yàlla jëla jëlaaluhu li si safaanu nu ngi koy leen koy jéggalu loolu nekkoon seen émission wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin maa bëgg yónneen maa bëgg yónneen Moustapha mooy yónneen maa bëgg yónneen maa bëgg yónneen Moustapha loxo ya sa kaw maa bëgg yónneen yëre bëgg yónneen Moustapha moo mat a xam